la télévision Futurs média ñu ngi leen di kontaane bu baax ñi nekk Dakar ah ñi nekk euh, Sénégal ñi nekk Afrique euh, ñi nga xam ne ñoo nekk Europe ak ñi ne Amérique ak ñi nga xam ne ñoo ne Asie ak Océanie ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax fu ne la waaye di nekk rek di bàyyi xel li nga xam ne moom mooy la télévision leader du Sénégal jaa ngeen jëf kontaanaat bu baax a baax a baax un week-end ah bien un week euh, boo xam ni taar kàlla dañ leen di wan li war a xew ci week bi yëpp moo xam muy samedi dimanche ba di début semaine fii lay xewee ci biir télévision Futur Média ànd ceeg équipe bi nga xam ni wax naa ni balaa ma leen di jox kàddu ñoom kenn di nuyoo damay def li nga xam ne moo ma neex ba noppi of mbay boo bëggee mën naa jug de loo ma jaay mën naa ko jënd tabarkàlla <laughs> balaa ñuy dem euh, tey moom dañuy teel a génn Sénégal moom laal Afrique sama xarit nga yal na sa jàmm yàgg sama xarit nga tabarkàlla xam nga boo defee yu baax da bëgg nit ñi la ko waneel Euh, Papa Samba càmm le grand réalisateur le réalisateur de tous les temps Papa Samba yàlla na jàmmam yàgg maas sama xarit bi maa ngi ñëw ci yow léegi <laughs> lay of mbay lay dëgg la euh, ay gucci la ay gucci ay gucci la daal lii ak chemise bi yëpp ay gucci la ak jean bi yëpp ay gucci la waaw jaa ngeen jëfaay ñu leen di bu baax a baax nañu dem Côte d'Ivoire xool yi Moula euh, benn clip la boo xam ne dafa mel ni am na ay wax yu sew clip bii dafa mel ni euh, ñaari femme ñëwante nañ déewante ci kaw seen bi wax ni am na ay gaaruwaalante ak ay waxante ay rombante euh, yàqante waale yooyu yëpp am na ci nañ dem xooli ko ñëw balaa ngeen nuyoo à tout moment am na ñoo xam ne mën nañoo bañ a nuyoo ci plateau bi mu Moula ca Côte d'Ivoire ñuy waat léegi ci plateau bi ay ci Euh, Moula euh, mu ngi <laughs> ñu ngi woon ca Côte d'Ivoire tabaarkàlla euh, Khadija Dafé maa ngi lay nuyu bu baax madame Sakho ci wax ju sew jeeg tey la commencé gi nga xam tey nga ko commencé di la bu baax ana Didi salaamaaleykum. Samba Ba. naka ngeen def. sant nañ bu baax. ñu ngi am jàmm bu baax. ayca téléspectateur yi alhamdulilah téléspectateur yi maa ngi leen di nuyu ñi ma toogal ci plateau bi. di wax ni Week End Stars commencé dina comme tous les samedis et que tey dañuy delluwaat ci li nga xamante ni mooy ambiance ak ay activités yu nit mun a def donc koor gi jeex na ñu ngi ci yeneen donc dañuy dugg ci loolu ci kanam tuuti dinaa leen wan nag wàllum fecc dem ci ay détails yoo xamante ni demoon nañ ci ci ADS dance donc ñoom dinañu proposer ay affaires yoo xamante ne si kanam tuuti dinaa leen ko faram-fàcceel ñun ñëpp. ah foofu nga demoon tey tey ci wàllu fecc nga laa demoon hmm, culture. waaw ñun dañu bëgg a ambiance dañu bëgg lu neex. te xam nga hmm. Sénégal nit yi dañuy toog souvent naan tey la samedi fan laa war a dem bu weesoo restaurant bu weesoo euh, voilà ay géej ak yooyu fan laa war a dem lan laa war def donc yooyu ko la yu nit mën a a ànd ak ay copain am wala jëkkëram dem defi ko. yooyu am na solo am na solo Euh, nañu dem ci euh, promoteur bi euh, Amadou Mbodj nga xam ni initiateur la événement bu mag buy am ci réew mi événement bi war na ñoo xam sax histoire événement bi ndax yaakaar na su ma bi ci njëkk wala yi ci njëkk à l'extérieur la njëkk amee après ñu indi ko ci réew mi yaakaar naa ni am na benn état bu nekk biir États-Unis boo xam ni reconnaître na événement boobu nga xam ni moom lay def muy Calabas Awards nga xam ni ñi gën a ràññeeku ci réew mi ci wàllu yi nga xam ne ci la ñu nekk ñoom lay jox ay raaya donc balaa may avancer ci invité yi nga xam ni yeneen invité yi nga xam ni dama am sama droite ma jël premier invité bi nga xam moo nekk à gauche mu nekk ko xam nag man ak moom dañoo am ay points communs ah banlieue la ñu dëkk waaye tarkal la suñu wax day traîner eh, daf dër ba yàqu la def Amadou Mbodj maa ngi lay nuyu. Euh, merci. yaa ngi dégg merci mhm. merci. Euh, et puis euh, vraiment sois à l'aise euh, yaa ngi ci plateau boo xam ni ñu fi dër mën euh, dañoo bari ah waaw <laughs> merci beaucoup franchement parlant di la remercier je pense je pense que le Wittgenstein euh, damay remercier parce que yàgg naa fi ñëw euh, di nuyu ma di nuyu équipe bi. Mhm. Euh, di caméraman yeeg ñëpp franchement affaire bi yàgg na. maintenant c'est la quatorzième édition des Calabasas de l'Excellence Awards yàlla def ñu def ko sur le plan international ñu am ay raaya aussi à l'état de Memphis ñu war a jox ay pris ñi nga xamante ne ñoo dina ràññeeku. ci année 2020 ak année 2021 ci santé ci le thème bi ñu jël mooy côté emploi ak les awards muy les maires émissions les meilleurs trucs maintenant loolu yëpp nag ah, na am ay innovation yoo xamante ne ay ay innovation de taille la et que ñu ngi invité ñëpp pour ñu ñëw ci affaire bi incha allah mais ren ñu ngi ci euh, dégg bu baax a baax Euh, le nom euh, de feu Papa Thion di suñu papa euh, mën nañu ñoo xam ban taxawaay la ci am. man Pikine laa dëkk. Mhm. je vis Pikine. Mhm. ki sonné foofu ki sonné foofu nañu dimbali. je def leen téléphone yi silence te yàlla tax baal leen ñu. <laughs> ayca yeggale man je vis Pikine laa dëkk te Papa Thion Pikine la dëkk. Mhm. et ñun cest à que c'est pas te Papa Thione moom euh, nekkoon na benn Papa Thione international. le pape du peuple. merci mu doon éveiller ay nit par rapport à des paroles. Mhm. monument la te tey ji ñun doon ko war a sargal. dëgg la képp ku nekk jeune. moom am na ci benn part de responsabilité boo xam ne tey jii euh, mën na la conscientiser par rapport à sa musique. Mhm. Mhm. léegi nag loolu ñun ñëpp en tant que dañ ko war a sargal wala ko rendre wala ko ne ko carrément ne tey jii Papa Thione philosophie la. dañ ko war a jàngale ci école yi par rapport à ces paroles mm-hmm. moo tax ñu ñëpp ñu bëgg sargal ko bis boobu moo ko moom bis boobu bisu papa coono la et que di invité ñëpp aussi pour ñu ñëw. maa ngi ñëwaat ci yow léegi bu ma ñëwaatee dinga nga ñu wax parce que dafa mel ni am na ay raaya internationaux dafa mel ni am na ay euh, kilifa yoo xam ba pare dafa mel ni événement bi bu jeexee fii dafa am feneen fu muy am yooyu yëpp dinañ ñëw euh, dugg ci gën ci waxtaan kañ lay am ak fan lay amee loolu yëpp danañ ci ñëw dugg ci gën ci waxtaan yaatal ci ba mu gën a yaatu ah euh, salaamaaleykum Samira nga xam ne bu nu xiifee bu nu xoolee dañuy yaakaar ni Fanta dafa demoon fekk demul fenn sama yaay moo ñëw Adja Vessel mu Sëriñ Fallou xoolal bii xeetu décoration xoolal sama yaay ni mu def largement bare li ngeen def ngeen largement xoolal sama yaay ni mu def plateau bi taarkalla eh, ànd ak Abu Abel <laughs> doom ja taarkalla ah jël eh, njegandu indi ñu fii eh, ci nu koy waxee balla en français mooy euh, kër yu yàgg yi ancien kër yi te ngay xam ni euh, day yàgg te nga xam day mel ni ay kër yu weng labyrinthe ah, la labyrinthe labyrinthe Ndiaga Ndour indi ñu fii ci labyrinthe gi <laughs> ñu nekk fi wéet sama yaay Adja Vessel di ñu seet un mois quatre émission mu ñuy seet di xool fu ne sama yaay seet nañu ba seet ñu ci beneen télé dem na seen TV sax seet en ah, kay moo wax moo ma wax <laughs> ne ma wal fajiri sax seet naa la fa ma ne ko yaay nekk bu ma foofu waaw <laughs> mu ñëw fii fekk ñu fi ci cosaan yaay ñu ngi lay kontaane lu ñu nekk yaa ngi ci fu ñu nekk nga fekk ñu fa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax léegi ñu ñëw ci yow euh, Fanta mm, maa ngi lay nuyu maa lay fay Aba di nuyu suñu yaay ji Adja Vessel di ko wax nee na moon nañ ko torop waaye di nuyu fépp fu Sénégalais nekk rek ñu ngi lay jox loxo di la eh, taxawal non non non non non non taxawal parce que nit ñi dañ leen yemale eh of mbay yemale leen nit ñi waaw non non ma ne ñun ñëpp ñoo yem fa yàlla. kii bu ñu gënee xees mbaa mu gën ñoo taxul mu gën ñu plan yi ñuy jël kii lu tax ñun kenn duñu ko jël ñu jël kii de de de buste. <laughs> ayca waay yow waay yow ah yéen a ah, réalisateur bi la Pape Samba boo moytu di nga yegg sa kër li ma daloon samedi pass dina la dal kii ni ma def samedi kii. yow boo jugee di bu fekkee kii bu jógee taxaw du ma wëlbatiku nii. <laughs> moo gën cee samedi mami daa ñibbi. Ah kër yaayam dafa dem fekk ñu togg sombi reer mu woo ma ne ma Babacar ñoo jësi <laughs> di ko baalu ak xam naa ne sonal naa ko trop te xamul ne mm. ndeysaan sama góor nga moo tax donc di nuyu sénégalais yëpp fépp fu waay nekk ah les sénégalais de la de la diaspora leen di jox loxo di leen wax ni que Week-end Stars démarré na dans la nag maa ngi demoon fi nga xamante ne koo xamante ne lekk yi muy def yëpp c'est ça health na box la tudd ci kanam tuuti dama ciy xuus rek daal leen di wax ci lan la ñuy yëngu incha allah loolu ci wolof health na box mooy euh, la santé dans une boîte mooy wér-gu-yaram ci benn boîte ci benn bool lépp ñu tënk ko ci benn boîte waaw ci benn bool rek boîte c'est en français boîte c'est en français bool. yaram ci bool. ci bool <laughs> dinañ ci ñëwaat ci kanam incha allah ko kenn ubbi léegi ci kanam dañu ci ñëwaat euh, ànd ak Fanta Samira waaye tey yaakaar naa ne euh, humour bu ñu ko waxtaanee xam naa léegi rek su ñu prochain invité ci humour lay wax. incha allah. Mm-hmm. dafa naa ni euh, damay tàmbali nuyoo d'abord. Mhm. di nuyu téléspectateur TFM yëpp. di siyaar ñëpp di leen wax euh, samedi matin ni ñi leen di nuyoo bis bu nekk lañ leen di nuyoo rek di leen ñaanal jàmm ak salaam ju baree bari ah teel na noo tàmbali tey kenn tardewul ñëw nañu heure bu baax a baax tubaarkàlla ah, waaw maandul ci loolu rek ñu ngi leen di siyaar en tout cas bu baax a baax tey nag euh, defe naa ni événement bi ñu dëgmal émission bu mag bi ñu dëgmal nee naa monde entier am nañ seen émission bopp bu gën a mag mhm. nee naa Afrique am nañ émission bu gën a mag waaye nee naa Sénégal am nañ émission humour bu gën a mag defe naa ni ajjuma incha allah dina yaatu tey ci loolu lañu ñu xuusoon ci kanam tuuti dinañu wane li ci li ci ruus yëpp ñu yaatal ci bu baax a baax. aji ci kanam dinañ ci ñëw waaye ñun tam ci kanam dinañ ñëw ci bàyyi nañ ay wax yu sew dootuñu topp kenn ci ay wax yu sew ku tardé ku tardéwul yi yàlla xam na euh, koo xam ni da ngaa sangu sëlmu euh, ñëw say tànk nga fàtte koo diw loolu yëpp tamit yàlla xam na ndax yaakaar nañ ku nekk à l'heure da ngay diwu waa toppatoo waaw yàlla xam na tamit ñi nga xam lu mu xam ne teli ko loolu tamit yàlla xam na ko la loo wax rek di nga waxal sa bopp yàlla xam na ni yàlla xam ni tamit ñiy wax te kenn laaju leen yàlla xam na loolu lépp tey ay ci <laughs> le 29 c'est ce samedi donc ñu war a dem ci Pullman euh, ànd ak ki nga xam ni ñoom ñooy euh, calebasse de l'excellence awards donc euh, loolu yaakaar naa ni ñëpp a ngi koy waaj fi ñu toll nii que ne lépp yem na mm-hmm. et que mu nekk benn parcours yoo xamante ne pendant 14 ans 14 ans ñu nekk ay jeunes yombul dëkk Pikine mm-hmm. mu nekk loo xamante ne tey ji dañoo war fexe bépp jeune. Mhm. ak foo ma ci nekk nga gëm ne soo amee projet da nga ko war a gëm. Mhm. c'est-à-dire que on a on est parti dem nañu fépp ci àdduna waaye ñibbis nañu Sénégal c'est-à-dire que Sénégal lañu gëm euh, calebasse de l'excellence nag yàgg naa fi ñëw euh, yàgg na yàgg yàgg nañ ko def. maa ngi félicité di di di di rendre hommage aussi sama benn waaye Pape mhm. Doudou Thiam. nekkoon sama xarit. Euh, ma gaad bokkoon affaire bi ma gaad franchement parlant ñu yàgg ànd nag. ah di di di di di di def lu kenn lu kenn mës a def la def. am doom daal di ko tuddee Fatia. waaw doom ji bu école fi ñu toll nii bisimilah rahmaani rahiim moom lañu koy wooyee ci kër gi moom seen classe. alhamdulilah rabbil alamin rahmaani rahiim maaliki yawmi noonu lañu koy wooyee ba ba daaneel doom ji soo ko wax présent. Fat la ko tuddee Fatia. <laughs> léegi nag sur professeur euh, ñi nga xamante ne dañoo liggéey ci corona bi ñu ngi leen rendre hommage. Mm-hmm. Mm-hmm. on a décroché le professeur Didier Raoul. macha allah euh, moo xamante ne tey jii euh, après dañu koy fekk Marseille dem foofu. et moom mënul ñëw mais il nous a mis en rapport avec le professeur Cheikh Soxna. pour rendre leen hommage ci feebar bi. Mm-hmm. feebar bi dafa nekkoon lu metti mu nekk loo xamante ne lu metti la woon. et aussi di di la féliciter yow. par rapport ak sa parcours. parce que tu es parti pour imposer quelque chose. jàmbaar la donc loolu tey jii Sénégal yëpp dañ ko war a magnifier c' est le contenu local c' est la consommation locale c' est ça qu'on doit essayer de faire la promotion. Mhm. maintenant loolu mooy calebasse de l' excellence le mérite qu'on récompense. dans tous les secteurs d' mhm. euh, li may wax rek mooy ñun ay ndaw lañu nañu jéem. Mhm. lu ñu mënti gëm nañu nañ ci nekk parce que euh, la réussite au bout de l' man affaire boobu laa gëm macha allah en tout cas sant nañ la gërëm nañ la bu baax euh, ñu bàyyi la nga wax sa mot de que la TFM euh, c'est ça euh, c'est ça une télévision ñun de ci événement bi beneen télé la ci àndal mais Sénégal benn bopp la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi c'est le miroir du Sénégal quoi donc waxal sa mot de la fin bëgg sant nga gërëm ñëpp ñu yeggali ndagoondiwub sama xarit la hmm, am nga xarit bu baax la maa ngi koy maa koy nuyu bu baax hmm. di nuyu équipe bi yëpp di wax ne nañu fonk boobu waajur yi hmm. dañu gëm suñu bopp di sant sama partenaire yëpp képp ku ma jàppale maa ngi lay sant mënuma lim ñëpp parce que dafay nekk pub mais li ma wax rek mooy le 29 maa ngi invité ñëpp ñëpp ñëw hôtel Pullman le 29 mai à partir de 20 21 heures ñu ànd ci def ko après on passe à autre chose merci beaucoup. jaajëf ñu ngi lay kontaanee bu baax euh, Amadou euh, Mbodj euh, vraiment di la yow tamit fierté nga pour ñun ah ñu dëkk ci banlieue ak ñun mi bu ñu gisee suñu doomu réew boo xam ni dafay am ay initiative ah di innover ay programmes yoo xam programme yu riche lay nekk parce que gis nañ daanaan yi nga xam ni ñoom nga ci àndal ñëpp nga def ko ci Amérique daal di koy defaat fii ci réew mi di ko waajal def feneen ak feneen gis nañ ci waa Guinée ñu ngi ñëw waa Mali ñu ngi ñëw ñoom ñëpp ngi ñëw ah waa. Luxembourg ak waa Istanbul euh, Turquie ak ñëpp nga ci àndal vraiment ñu ngi lay kontaane bu baax yow tamit nga xam ni suñu fierté nga ayca beneen invité bi nga xam ne moom la ñuy am moom tamit euh, mu ngi ñëw léegi ci plateau bi ñu waxtaan ak moom kii doomi yëmbal la kii man ak moom dañoo bokk fi nga xam ni fa la ñu euh, soso waaye kii dafay def fierté fi nga xam ni mooy côté bi mu féetee man ci beneen côté laa nekk moom mu nekk ci beneen côté waaye ñu bokk tamit mu nekk sama concurrent ci benn jour ah jour bi waaw mën na yegg si euh, le même jour euh, bi nga xam ni man ak moom dañuy def suñu événement euh, guerre la ci réseaux sociaux yi. ok waaw man émission lay def. mais dafa dem ba mel ni événement ci réew mi moom événement lay def. mooy ki nga bokkal benn date. benn date la ñu bokk. le 28 bi muy vendredi ñun ñoo ko moom. ah jaar nii di xeex ma jaar nii di xeex. man man komam laa njëkk gis dama laa may gis. yaa xam ne loolu sa problème la <laughs> foofu nga far. suñu waa kër sax am na ñu far ci moom mais man loolu sama yoon nekku ci en tout cas la guerre comme à la guerre donc dañu bàyyi suñu invité euh, mu ñëw léegi daal di dox ñëw ci plateau bi Mame Balla Mbow donc Amadou mooy génn euh, jox ki nga xam mooy Mame Balla mu yegg si ayca ayca ayca ayca ayca ayca exil Mame Balla exil ay didi tey dangaa nelaw tey géré woo Didi moo géré wul oh Didi la ilaha illallah oh oh Didi oh Didi oh Awa Gueye ñëwaale Awa Gueye ñëwaale oh Didi oh da daan toog tay Didi moom laa doon xaar xaar naa ko ba sonn <laughs> Didi ayca Mame Balla ñu ngi lay siyaar. waaw salaamaaleykum Aba. Mhm. di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp. di wax ne tey mbégte laa pour ñëw ci émission bu mag bi di Weekend Star mhm. donc di kontaan bu baax di nuyu waa buun bi ma jógee waaw yaa ngi dégg waaw buun bi ma fay yaakaar naa ne euh, caravane moom ak moom indi ba fii gis ma fi kenn de man balla wala oh mënoo maa napp man ngay ay caravane moom indi ba fii gisuma fi kenn <laughs> oto yi nekk ci ak éditeurs yeeg yooyu noonu donc man lañu àndal quoi donc di wax ne kontaan nañ bu baax ci ñëw émission bi di waajal vendredi le 28 mooy suñu bis keneen ku jox ci bis bi jàppal ne moom moo ko daal. ok ok c'est comme tu veux mais tey jii. Euh, askan wi ñu ngi lay gis ah ci euh, Facebook bi yaakaar naa ni fan lañ la gën a miin ak ci yenn réseaux sociaux ci TikTok bi bokk na ci les meilleurs TikTokers du Sénégal parce que TikTok boo xam ni dafay faj nit ñi bu buy retaanloo nit ñi yaakaar naa ni euh, Mame Balla bu ñuy compter cinq dina bokk ci cinq yi mais Mame Balla doon wax tey fi nga jógee ak ba fi nga yegg si nii nga tënk ko kan mooy Mame Balla waaw Bambal Mbow yaakaar naa ne benn euh, jeune jeune sénégalais laa boo xamante ni bon imu dafa yàgg nekk ci man ma ci yàgg documenté wu. donc tey bu ñu ñëwee tey ba gis ay grands yu mel ni Abba ñoo xamante ni tey il font la fierté de la banlieue di def la fierté du Sénégal kon ku mel ne Abba tey on parle de Abba international donc tey ñu mel noonu dañuy inspiré donc bi ñu nekkee jeune dañ doon dañ doon documenté wu ci humour man yàgg naa ko wax ne sama. sama idole ci humour mooy Gad Elmaleh waaw ci laa yàgg inspiré wu di seetaan ay ay ay spectacle di yàgg bind di yàgg document di seetaan aussi parce que euh, boo nekkee ci dëkk da yaakaar naa da ngay jéem a xool ñi fa nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy précurseurs yi pour ñoom ñu jox la expérience donc loolu tax tey ñu yàgg nekk ci réseaux sociaux yi di def suñu liggéey ba tey yaakaar naa ne am na benn publique bu ñuy topp boo xamante ne tolloowul ak li topp li topp avant. parce que moom moom. benn la moom moom moom li ñuy wax li nit ñi comprendrewul maanaam euh, moom mooy suñu aîné quoi abaa doo ko doo ko yëgal dara moom mooy jël téléphone am ne booy defal lii defal la moom mooy tax daal bàyyil bàyyil ma defal la communication quoi a maña donc tey jii daal yaakaar naa ne affaire yi avec l'appui des gens tey affaire yi àgg na fi mu war a àgg ba ñu waree ñëw le 28 war a wone li ñu liggéey yaakaar naa li ñu liggéey moom li ñu liggéey dal na xel. macha allah <laughs> macha allah c'est que c'est que c'est que c'est office de la banlieue ñun banlieusard euh, gëm-gëm ci ñun la nekk ak esprit de euh, innovation bi donc ñun ñoo ko am mais daf ma woo mu nekk sama frère euh, de fi ñu dëkk nekk sama frère de culture un frère de art donc woo ma ni ma dama am benn bis boo xam ni du sax sama bis sa bis la yow donc comme waaw comme yow lii yaa ñu ci jiitu yaa ñu wan yoon bi ba ñu gën ko gëm donc bis bi sa bis la léegi ñun ñu amoon le 29 waroon dem ca Kaolack Kaolack boobu yembul euh, am yu ci manqué ñu ne dañuy fomm bi ñu fommee directeur ne ñu le 29 da ngeen koy def émission fii Mame Balla le 28 Aba le 29 ñaari communication yooyu mën na am kum dul arrangé donc te dafa jël yëf bi dénk ma ko ma woo Balla ni ko dañuy def le 28 Balla ni ma non maam ma ni ko dañuy def le 28 concurrence ak moom donc par force coow dina am ñu yëgul woon bosu maam Balla dinañ ko yëg ñu ci bëggul woon dem dinañ ci dem nga xam ni coow li day bari terewul ñun émission bi ñuy def 100 personnes bu ñu ko amee dañuy def maam Balla moom soxla na 500 personnes donc sénégalais yi di wax naa ni man maa taxaw wax ni kenn du dem ci bosu mambal la mais man man dama bëggoon dem ci yéen ñaar ñëpp mais je me suis demandé ndax yéen a bokk heure bi tamit. non mais bii neex ñun dañuy xaar ba mambal la pare. loolu ah, moom moom moom moom moom xaw xaw ma de mais moom moo ñu njëw présenté. waaw waaw booy dugg ci mbir yaakaar naa ne da ngay woo sa aîné. la xamante ne tey euh, ténor la ci mbir yi. njëw mhm. teg la ci axe tu parce que tey munoo def yaakaar naa ne mënoo def one man show bi Sénégal te doo jël avis Abba quoi. Mhm. parce dem nañ ba naan Abba show every time every time di ko tegle chaque semaine. yaakaar naa ne kooku munoo def benn mbir te doo ko ci boole daal. donc daal ñun li ñuy wax ñun ñu ngi seen ginnaaw. Mhm. di wax ne ngeen ñaanal ñu pour que le 28 ñu indi leen loo xamante ni ñu wone xar kanamu buun quoi. Mhm. buun gars yi lañ <laughs> nit ñi dañoo bëgg buun c'est que euh, ñun même ba ci ñun ñi dëkk yëmbal dañu bëgg buun waaw buun moom je pense que euh, ku fa dëkkul rêve nga faa dëkk ku fa dëkk sant nga yàlla ci dëkk bi nga fa dëkk te mu war ñoo wan xar kanam voilà donc ni waa nit ñi dinañ jóge loo ñuy wan nga ne nit ñi dinañ jóge taata gin dinañ loo ñuy wan nga ni non xar kanamu xar kanamu bu macha allah macha allah mais nga def ah étant à la base après nga jógee ci tiktoker ñu jékki-jékki di la gis ci Arrêt Mère Thiaba jékki-jékki gis la ci infidèle nga nekk ci Baye Gaynde comment ça s'est passé transition boobu. waaw xam nga man li may wax rek xam nga tey jii. non loolu transition de bàyyi bàyyi ma bàyyi ma tontu ci loolu après nga yegg loolu avancement la. ah avancement la. Mm. ok. <laughs> waaw xam nga li may wax rek xam nga tey jii àdduna euh, da ngay toog. ne da ngay def lii euh, moment bi ba moment bi li ngay def mhm. maanaam carrière dafa am benn noo koy gérer daal da nga naan moment bi damay bind moment bi du ma defagum euh, du ma apparaître gum ci série moment bii laa war a def one man show pour pour mon public maanaam tey jii dina am ñu nekk sa ginnaaw ñoo xamante ne mën nga bëgg a def leen rax ñu ne la booy teel na mhm. wala booy bul dem fii bul def lii bàyyil ba moment bi nga def temps moment bi nga def temps donc yaakaar naa ne carrière Sénégal maanaam Sénégal xew yi dafa yomb dafa am nooy noo noo xamante ni noonu nga war a gérer sa sa carrière mm. xam nga gérer sa public parce que tamit tamit mën nga am ay public bu nekk ci réseau social bi yëpp mën nga jàpp ne dafay virtuel tant que defagoo lu jëmmal loolu noonu mm-hmm. day virtuel quoi pour nag nga am public boobu maintenir leen def mainmise ci ñoom il va falloir nga teg quelque chose de concret boo xam ne ñoom dinañ la wuy si tu vois te mm. yaakaar naa ne abaa bi mu ci jàppee benn jour lañ jaay bi mu def mu jeex. macha allah mais tey Mame Balla étant étant genre bu ñu lay xool si TikTok bu ñu lay xool sur Facebook c'est plus des parodies yooyu def wala di imiter wala ak affaire yooyu. lan moo tax nga léegi nga ne dangay ngay seppi sa bopp dem def one man show boobu nga xam ne c'est c'est plutôt yow. Mm-hmm. ak public. Mm-hmm. tu parles pour un long moment. Mm-hmm. et ñoom dañu war da leen war a entertain pour moment boobu yëpp. c'est assez difficile nag lu metti la g naa gars yi bi pour nga dugg si one man show waaw mooy li may wax rek xam nga chaque jour man boo xoolee dama naan jël ay ay ay thèmes. di ko bind. ba ba nit ñi bu ñu koy lire dañuy dañuy dañuy MDR quoi. Mhm. donc je me suis dit que ne là parce que spectacle bi ngay bind bi ngay bi ngay bi ngay produire sur scène yaakaar naa ne bind mooy njëkk a jiitu. Mhm. te bind boobu nag après da nga koy da nga koy retransmettre mu pour mu nekk parole. Mhm. te pour mu nekk parole nag loolu beneen liggéey la boo xamante ne maanaam da ngay jóge point A. dem point bi nga xamante da nga ko war a def sa carrière parce que am na ñoo xamante ne humour satirique rek la ñuy def quoi dañuy toog bind mu jeex mais am na benn moment boo xamante ne tu te dis que ne moine dama war a jóge point bi maanaam defi lale mm-hmm. loolu nag yaakaar naa ne liggéey nañ ci ak ñu ci war a liggéey ñëpp mm-hmm. ànd nañoo ak suñuy coach ànd nañoo ak suñu encadrement ànd nañoo ak ñuy yor préparation musique bi <laughs> tu vois ànd nañoo supporters yi ah, ànd nañoo supporters yi ànd nañu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp moom mi moom mi day day tëdd ba guddi ma woo ko day tëdd ba guddi ma woo ko na ko grand lii ak lii ak lii ak mu ne ma tegal lii defal lii mhm. defal lii bàyyi lii bàyyi lii loolu mooy humour voilà bu ñu waxee one man show mooy sa premier grand spectacle mhm. waa le premier le vingt-huit mooy sama premier grand spectacle te yaakaar naa te naa ne ku fa ñëw ku fa ñëw ba xool di nga xam ne voilà li ñu liggéey li ñu liggéey xajul le 28. man je le dis souvent li ñu liggéey yokk le 29 nag. li ñu liggéey vraiment yaakaar naa ne bu bu ah, bu la neexee. Ahmed Sylla ñëw na fi def benn date doyul. mu dolli bu doyul nañu dolli beneen bis. waaw incha allah en tout cas sant nañ la gërëm nañ la di la souhaiter une très bonne continuation. wax ñu tey jii li nga xam ni moo ci. des ci ay billets foog naa ni benn bloc lay mat euh, ku ko bëgg fan ngay dem pour mën ko jël ndax place yi jeex na. amatul non billet jeex na. amatul. jeex na te parce moom moo def publicité bi. léegi le 28 kañ la ñuy. moom <laughs> Instagram moom moom euh, c'est l'humoriste le plus suivi au Sénégal. donc quand il fait publicité yaakaar naa ne say billets. bu fekkente ne nit ñi gis nañ ko dootul dootul taxaw quoi. dafa def publicité bi le lendemain. on est ensemble le lendemain les billets. les billets waa buun jënd waa gin <laughs> amuñu waa waa Pout amuñu. ay te buun Tataguine ak Pout ñoo bokk. waaw te ñoom ñoo moom spectacle. voilà donc yàlla na seen yàgg en tout cas ñu leen di kontaanee li fierté lay def pour ñun. parce que boo demee en France euh, nga dem ci euh, yenn rue yi da ngay gis. Euh, comédie club benn comédie club ñaar comédie club ñett te chaque samedi ñoom ñëppay produire te chaque samedi ñëppay feesal dell donc tey au Sénégal bu ñu demee ba war a yegg foofu ah les Doudou fait des vidéos les Diaw Mame Balla Mbow ay Singom général Kayré Ibou Ndim ah ñoom. Euh, tos ñëpp di def ay ñëpp di def ay production eh, te terewul yëpp di dox moo lay wan ne suñu humour mu ngi dem ci kanam ak kanam donc vraiment te bu avancé ñun ñu avancé bu avancé Afrique xam ni suñu humour mu ngi màgg Europe xam ko Amérique xam ko àdduna xam ko te loolu ñun ñëpp lay baax ci ñun donc vraiment nañu liggéey hmm, nañu gën a concentré wu ba ñu yàkkamti li nga def ni am na solo bind ko préparé ko 6 mois euh, répété ko ñëw teg ko gaa yi bu ñu ne au rek mooy mois prochain ñoo lay proposé le grand théâtre ñu jëm yàlla na sa jàmm yàgg jaajëf Mame Balla ñu ngi lay kontaane loolu ak kay Didi nag waaw léegi Didi léegi sànq rek fan nga nekkoon ah! <laughs> ok salaamaaleykum yaa ngi am jàmm jaay Pape Samba da may bàyyi rek eh, def ma nank rek waaw eh, waaw waaw nga dimbali ma rek ah dégg nga acce ah, ok ñu ngi lay nuyu <laughs> ah, xam ni kat <laughs> maa sonal kat kii hmm. la hmm. euh, waroon na doon sama hmm. euh, am na ci kum dem pour nga jox ko ko thank you lii du dem ndar lii bu soob du dem ndar nuyoo euh, Aba maa ngi lay nuyu euh, nuyu again euh, ñi ma bokkal plateau di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan partout nag tey Aba comme ni nga ko xamee rek tey lu spécial laa leen indi loo xamante ni dama start sama weekend with a positive vibe. oh. an extraordinary vibe. oh. vibe bu stylish. vibe sexy. vibe lovely. vibe bu vibe colorful. ah waaw. co tey nii laa commencé sama weekend. congratulation bu dee bu dee am naa tuuti Selbé Ndom. Eh, wala ma am tuuti kële eh, kii. daba booy. Mm. dafa mel ni xam naa kan ngay wax de mais du ko wax kon. sama yoon nekk ci bu ko wax ay jéggalu bu ko wax. Eh, Amir Sow ñu dem seetaani ko moom mooy suñu prochain invité ñu jël ko waxtaan ak moom ci plateau bi ana Amir fu mu nekk Pape sàmba soo paree rek man pare naa nañ dem eh booy bi fekk ma ko Amérique. boy mi ak a dooj te mën a wax ayca mu ngi noonu donc euh, am na solo bu baax a baax a baax euh, yaakaar naa ni Amir maa ngi lay ziar. yaa ngi ci jàmm. sant bu wér. ayca ma bàyyi la nga nuyoon toog téléspectateur yi sa caméra ne ca ruq ba. waaw asalaamaaleykum Aba euh, maa ngi nuyu Sénégal bokk Sénégalais yëpp di nuyu képp ku ma xàmmee di ma seetaan fii ci TFM. di ci profité waale aussi di nuyu fi nga xamante ne fa laa jóge muy New York naan leen seen doom a ngi fii tey Sénégal ngir def promotion bi. di nuyu tamit sama bi Haalpulaar yi kala biyo mbime mbimami salminima mboɗo wima ko amir sow wonɗo e nder galle tfm euh, andi tan pour hollirde kadi hoore mum e nder sénégal ɗo e donc am na solo nga indil ñu yaakaar naa ni euh, clip bu bees euh, yow kañ nga fi ñëw ak clip bi fan lañ ko defee ak kan moo ko def ak son bi fu ñu ko enregistré yooyu yëpp dama la koy laaj dañoo invité ndoo man ak moom añ ca Amérique ñu demoon ca Bronx yaakaar naa su ma juumul ca Fatima ah, añandoo fa mais mu nekk ku mën a añ nag Euh, kuy añ di way waaw kuy añ di way day añ di mais mu wayal ñu fa keroog ay way yu neex euh, vraiment mais añ fa tamit añ gu euh, kii añ gu yaatu yooyu moom du ma ko fàttaliku garaawul waaw loolu añ hmm. aba añu américain la noonu lay demee <laughs> waaw aba maa ngi fi depuis ci début koor gi ba léegi maa ngi fi dama ñëw nag daje koor gi ok daje tamit programme suñu programme ñun bokk la programme gars yi hmm. ñu stand by ko léegi nag ñoo ngi doo commencé ñu profité ci balaa ñuy dellu gën a def promotion musique bi promotion ñu war a def benn album tamit mais mënaguñu ko génnee tant que defuñu promotion ba ñu xam kan mooy Amir d'abord ndaxte lu ci am solo la waaw man nag damay liggéey ak euh, waa Ramadaan donc euh, ak Papis Ndiaye bu Blue Music ma signé ñoom benn contrat contrat bi nag contrat moral la rek du contrat écrit yàlla def na lépp lu may def ñoom ñoo ma koy defal waa Ramadaan donc ñoom ñoo ma jàppale ci son musique bi ngay dégg ni ñoom ñoo ko def ak leneen ak leneen li nga xamante ne jotoon naa ko def itam ñoom ñoo ko def euh, ñoom laay liggéeyal donc ñoom ñoo def lépp donc noonu la demee. ci mhm. studio Sénégal yi damay préféré di ko di ko enregistré fii ci Sénégal parce que même fee bu fekkee tamit xam nañ mën nañ enregistré mën nañ prise mais xorom si nga xamante ni. mbalax mi mbalax mi mhm. ñoom. faaw dégg. ku dégg moo lu ko mën a mhm. defal cas boobu dañ ko ci soxla. donc loolu moo tax ma ñëw fii. te tamit dafa am la ngeen te moo xam li nga xamante ni moom ma gën a poussé tamit mooy loolu mooy euh, musique pulaar bi. man moom laay def. ndax bu njëkk boo nee Baaba Maal da nga naan Youssou Ndour ne Thione Seck ne Omar Pène mhm. donc tey ñu dem di dem dem ngay dégg Waly di dégg Sidi di dégg El Hadj di dégg Pape Diouf mhm. mais ana Baaba Maal bi foofu mhm. yaa ngi di non mais kii dafa sacrifié relève bi te ma gisee sacrifié kenn Diallo hmm? Ousmane Gange non sacrifié wu ma leen Abou Abou Juba eh, de man Abou Juba de sunu sunu maama ñu ko wax moo ni ñu Abou Djibo daa a way. donc Aba ci musique bi di ci def lu am solo. maa ngi ñëwaat léegi. Aba Abou moom tam mu ngi fi. Ah. donc Aba du question dama leen sacrifier mais dama ñëw pour yokku benn benn pousse. ok ok mais ñoom ñu ngi fi. ñoom ñu ngi fi da nga ñëw pour accompagner leen mm. pour pousse ak gën a fësal suma bopp tamit. pulaar gi ok kon da nga jàpp ne ñoom nekkuñu di def enof euh, liggéey boo xamante ne peut-être euh, xëj na bu ñu fësoon wala taxaw taxawaay bu ñu waroon taxaw euh, yow may bi you would have not been here loolu dama koy ñaan baasaale rek après nga tontu ma li ma lay bëgg a kii mooy sa style gis naa ne da nga poche. <laughs> Euh, lan moo ko waral da nga am euh, somebody koo xamante ni moom ngay xool wala danga nga ne damay ñëw weekend start xaar il faut que ma poche or oh, this is you. ak tamit USA nga euh, loo fay def apart from the music. waaw style bi bon man xale laa xale banlieue laa jàmm gën caaru Pikine laa mm-hmm. boo xoolee Abba rek xam nga ni dañoo bokk. Mm-hmm. moo tax mm-hmm. moo tax like that. différence bi bariwul. kii Abdourahmane lay àndal ñoom Abdourahmane yooyu lay àndal. gis nga donc style bi dama ñëw dañoo jëloon musique pulaar rek teg ko fenn. boo mm-hmm. solu grand bu bokkoo. Mm-hmm. Mm-hmm. boo tollu tengaade bokkoo. boo takku sa ndig bokkoo. boo mënul tëb bokkoo. donc ñu dem ba jëbe génération bi ngay gis génération boo xamante ni mel ni El Hadj dafay sol rafet. moo nekk xale. nga gis Wally Seck mu sol lu rafet nekk xale. Sidi nekk xale. la ma war a teg ma nekk war a nekk jeune. wala mën a yóbbu sama bopp feneen te war mu mën a ñëw bokk ci kan boobu. nga moderniser lépp daal donc ñaar yëpp laay boole. parce que bu ñu nee kan mooy Amir dafa nekk benn Baaba Maal plus un Thione Seck da lay jox musique bu bees. ok oh, ok benn Baaba Maal plus un Youssou Ndour mu jox la bu bees. yow mi Abba mi nga xamante ni déggoo li Amir di way boo déggee musique bi da koy fecc par force. Hmm. ki nga xamante ni dafa nekk fële naan suma papa tukulóor la suma yaay tukulóor la de dégguma pulaar. Hmm. war na Amir di jouer di way pulaar mu ñëw foofu foofu. Hmm. bon dama gis benn tamit ñeneen ñi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi songu grand théâtre pourquoi les jeunes wichés. waaw euh, lu tax ñoom nekkul ni dama dama teg sama bopp ci level boobu déedéet dama bëgg ñoom tamit ñu ñame public yu mag yi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. dañ ko war a mën a ñeme dañu war a mën a sóoru grand théâtre comme ñenee ñi ni ñuy sóoroo grand théâtre kenn moomu ko de kenn moomu ko mm. ku am fulla rek moo ko moom ku gëm boppam moo ko moom mm-hmm. ku am fit moo ko moom eh. te man loolu lépp dajale ci man. buñ la toppee sa waxtaan dafa. amit dama ko bëgg laaj intéressant buñ ko toppee dinañ fi yàgg de. dama ko bëgg laaj benn hmm. combat boo xamante est-ce que euh, tey yaakaaroon dajale tey musicien pulaar yëpp bokk ak ñoom ci album projet album bi nga nekk gënul yomb ci yow parce que euh, boo bëggee jël relève bu Baaba Maal. ñëw dem ba Gisee ñëw jéggi Kan Diallo jéggi ñeneen ñi nga xamante ne aussi ñi ngi fi woon ci pulaar bi est-ce que. non non grand sax jéggi. Ah. ba léegi maa ngi seen kanam seen ginnaaw maa leen nuyu de passage di nuyu Demba Gisee di nuyu Kan Diallo moom moom ma njëkk a jox micro moom ma njëkk a gëmloo ni man am na lu nekk ci man biir New York bi ma fekkee foofu dama woy taxaw mu woom ba ma ñëw ni public bi kii bi nga ko jàppalee di ngeen gis dara ku ci mel ni Aliou Gissé moom ma njëkk moom laa aw biir New York mhm. di nuyu tamit suma mag Daba Sey bokk nañ ci ñu ma initié benn kër moo nekk sama diggante ak moom mhm. doon génn kër dugg këram ma yàgg di ko gis muy waay film boobu di dugg ci man may màggaaleeg moom ba tukki dem New York New York ma am dëkk liberté la kenn wax kenn looy def yaa xool la arrange nga def ko mhm. beneen mooy def mu musique kese mhm. man je suis technicien en bâtiment je suis mais musique dafa nekk la nga xamante ne dafa nekk ci man passion la mhm. may judd sa fekk sama papa di déglu Juba loolu dugg sama sama bopp ma juddoo Dakar nag yaroo Dakar nekk un judd jéeri mooy ki nga xamante ni Dakar nga juddoo bu leen naan booy town boo demee Fuuta bokkoo mais ma xeex ba gagné suma place biir Fouta. Amir ñu ngi lay sant di la gërëm euh, wax ñu sa mot de la parce que fi nii vraiment yaakaar naa ne lépp leer na. Euh, tënk na euh, li nga xam ne bëgg na ko wax ñu tamit lu ñu bëggoon a xam ci moom yëpp wax nañu ko mu leer yaakaar naa ni promotion bi yegg na ba Amérique fi ñu toll nii toog fa. tarkal la Amir sant nañ la gërëm nañ la wax ñu sa mot de la fin. waaw mhm. ku ci mel ni Yuma Aysiba. Mhm, Yuma ñi ma ñi ma gën a ñëkk gëmloo bopp. Mhm. plateau plateau bi plateau bi gën a ngande. festival bi a ngande biir États-Unis moom moo ci njëkk a dugal. muy Yuma Aysba aw ma fayam mhm. ku ci mel ni Ami Ndiaye aw ma fayam ku ci mel ni Moustapha Kane ku ci mel ni Pape Kane ku ci mel ni Awa Kane ñooñu aw seen fay ah, di nuyu Laasana Chéri Awa Diop maa ngi koy nuyu bu baax a baax mhm. Mayram Ba Mayram Ba maa ngi koy nuyu bu baax a baax xam nga di nuyu képp nga xam daal xàmmee nga Malick Sow fii à travers TFM à travers ci télé bi maa ngi lay nuyu di la ziar di la bégam di wax nag sama mbokk Haalpulaar yi jéem a pousse kenn dama leen di mhm. woo rek pour ñu ñëw ñu bokk ñu liggéey ñu xamal ni gars yi tamit ñun mën nañoo du Grand Théâtre kenn moomu macha allah ay ca bi ngi noonu kontaan nañu ci moom bu baax a baax mais cat moo gaaw euh, bu ma nee cat moo gaaw damay wëlbatiku euh, si gi daal di xool Awa Gaye ne ko bi dafa mel nii bu ma juumut am na problème euh, nañu dem ci sa rubrique waaye yaakaar naa ne clip ngay mujjee ñaan de laay doxalal Awa Awa doxalal pep gis lu mel ni nee naa leen tey sama vibe is very colorful oh. tey ki indi she's a superstar hmm. a woman Euh, koo xamante ne euh, depuis bu mu ba tey macha allah macha allah she is a top notch artist a diva euh, koo xamante ni macha allah macha allah kenn du ko xool ne ko ndeysaan kenn du ko xool ne ah moom kat teggi tànkam. Euh, kooku mooy kan euh, kooku mooy euh, the true diva of Senegalese mbalax kooku mooy the queen of Senegalese mbalax R&B Senegalese waaye this time around mu indi lu different mooy lan mooy pop music mu ne Sadik Lady dañu dem seetaani Viviane Chidid Sadik Lady and when we return dinaa leen décortiquer ndànk-ndànk tegal leen ko piece par piece we'll be right back Euh, right Viviane euh, Chidid euh, démb mu joxoon nit ñi rendez-vous at 6 pm mooy 18 heures ñëpp toog di ko xaar mu mu daal di moom si boppam bi may wax ak moom over the phone mu am benn pression boo xamante ni ku nekk di ko xaar di ko xaar ba yëfu star la mu si doon jéggalu nag fansam yi nga xamante ni dañ toogoon di ko xaar ba den Abba xam nga lan moo amazing si clip bi mooy presque ñëpp ñu bëri dañ génneen door clip démb at à 18h moom mu génnee clipam bi at 20h01 euh, waaye euh, within euh, one minute am na over 100 view mel ni ñëpp dañ ko doon xaarandoo boobu ba tey nag am na 14 mille 14 thousand of li nga xamante ni mooy likes mu am 136 views mooy 136 views te xam naa ne sax a loolu bu yàggut la xam naa ne gën na yokku bi nga koy mujjee xool li nga xamante ni mooy produit production music bi ak yooyu noonu mooy lébélu Viviane si boppam eh, ñoo ko def waaye eh, Aba Baxaaw dafa defati mëneenam eh, ndaxte ba Baxaaw moo bind li nga xamante ni mooy the song. bari na yoo xam ne bu ñu génn mooy mëneen bind. exactly mm. Akashi ak li nga xam Akashi moo def mixing bi ak mastering arrangement bi ak yëpp moo ko def Viviane nag man si sama yaakaaru bopp mooy boo xoolee Beyoncé album Lemonade Hold Up. Euh, bi mu woy euh, man pour man Viviane am na lu mu jël foofu euh, kii nga xamante ne tamit mooy Rihanna work work work work man clip bi yëpp dama foog ne sax foofu am na lu bari loo xamante ne mi ngi si work work yaa ngi koy gis fii Viviane est-ce que dafay waaj a woy ak Beyoncé Viviane est-ce que dafay waaj a ak ki nga xamante ne mooy Rihanna o euh, dafay waaj dem fi nga xamante ne mooy États-Unis parce que man loolu moo may xeeñ euh, xaw ma nag euh, waaye man loolu maa ngi koy séentu du yàgg dara Aba di wax ñëpp ne Viviane defaat na li nga xamante ni mooy muninam Aba comme amuñu much time ak invité yi ak yooyu noonu dama koy daal di tëgg foofu na nag ñu dem seetaani Viviane li li nga xamante ni mooy albumam bi waaye incha allah xam naa dina am spécial wax waxtaan comme Aba ni mu ko waxee boo xamante ne dinaa ko indi sama diggante man ak Viviane euh, ñu daal di waxtaanee euh, lu baree baree baree bari Aba waaye Aba dañu dem South Africa. Mhm. Euh, South Africa dañu def benn mariage acte ne jigéen ñi am nañ droit léegi am ñaari jëkkër. Mhm. wax nañ ko. waaw mhm. jigéen ñi léegi am nañ. South Africa mhm. euh, te ñu bari ñu ngi waaj a tuxu dem South Africa mhm. te euh, nanguwuñu benn góor am ñaari jabar mhm. ba jigéen am nga droit am ñaari jëkkër so loolu moo xamante ni moo li nga xam ne dafa trendy à part Viviane loolu mooy toj fu mu toll nii mooy toj nañ li yàlla wax euh, teg ah, seen ay waxi bopp léegi nag ki nga xam ni ah, yaakaar naa ni yaakaar naa ni nit loo bëgg àdduna bëgg àdduna wala bëgg ay yëfi àdduna parce que moo ma nee ay yëfi àdduna am na loo xam ne mënuma ko wax boo dee jigéen loo bëgg yëfi àdduna bëgg ko war ngaa mën a xam ni keroog yu man xiyaam yàlla dina àtte ñëpp bëgg yi fi àdduna nag moom mënta weesu dégg ne Afrique du Sud lii am na fa yow li ne fii arrangé wu la nga bëgg fi àdduna. ba tax nga dem ba Afrique du Sud. léegi man sama question yëfi àdduna rek. mais nag même ci kii bi yëfi àdduna góor loo bëgg bëgg yëfi àdduna tamit. Ah. war ngaa xam ne keroog yomal xiyaam yàlla moo ni góor may na ko ba ñeent yàllaa ko wax gender equality gender equality bi nga xamante ni Africa ñu bari fight nañ ko ak yooyu noonu South Africa euh, ñoom euh, dañu teggi raaya bi gender equality bi mooy euh, li góor mën a def jigéen war na ko mën a def ba si côté mariage léegi nag man sama problème mooy côté aye bi nu muy demee. nañu dem xooli clip lil xaa euh, te ñëwaat léegi ci plateau bi daal di koy yeggali yaakaar naa ni buñ ci xuusee rek dina am feneen fuñ dugg te loolu mën nañ cee jum ndax maîtriser wuñ ko nañu dem xooli clip lil xaa ñëwaat ci plateau bi daal di waxtaan ak moom mooy suñu invité beneen bi nga xam ne moo ñëw toog ci plateau bi ayca. noonu donc euh, yaakaar naa ni euh, gis ngeen suñu déplacement bi maa jël baal maa ko sànni fee maa la jël indi la fii parce que lil xaa moo way way bi mais daf ci def ak kii mu àndal kii kii gunge ko ba fii Ah, xam naa bu ñu ko joxee micro bi dina kii mais binduñu fi turam loolu moo tax turam mënu ma koo xam léegi mu gunge ko ba fee mu war a toog fee ma ne ko lil xaa yaa bon yaa kii yéen a ànd studio yaa kii yéen doon répété ndoo yaa kii yéen a bindandoo son bi yaa kii yéen defandoo clip bi nga bëgg a ñëw toog fii bàyyi ko mu yaa lil xaa yaa bon. ko wax. sama xel ci sama ci sama xel laa ko wax ñu yow li la mooy ni mën a sànni foofu moom loolu la ko metti la ko sànni fee mais ñu ngi lay ziar bu baax li la xaar. waaw maa ngi delloo ziar Abba di hmm. nuyu Sénégal everybody su boole xale yi ay bandi du bandi bandilu maa ngi nuyu Parcel Advice Music yëpp. ki nga àndal kan la. ki may Louda bon mun naa def. moom moom mënu maa fay moom yow moom sant ba gërëm ma jox ko bi si seen caméra ngi ne maa ko teg ci plateau bi. asalaamaaleykum Abba asalaamaaleykum senegal vraiment mbégte la contentement te fii tey ci Weekend Star émission star yi ah comme ni ñu ko baaxoo di defee tous les samedis tey ñu ñëw fii ah, mbégte la contentement vraiment di nuyu ñi ma bokkal plateau bi soxna yu rafet yi macha allah di nuyu la communauté Halpulaar. ñu nekk sénégal ak ñu nekk ci diaspora bi mbeɗa salmina dendagal wiyoɓe mbimi e mbimami goto fof indi mum en mbawi yettode mum vraiment ko wettare mawde mhm. on est venu ici au nom de advice musique groupe maako mum duñu groupe mais dañoo bokk label buy advice musique groupe bi nga xamante ne ko rosso moo ko jiite di suñu grand bu baax donc on a fait le son jégalu euh, si veyu koritel euh, bi pour euh, xam nga saafante ak suñuy soppee suñuy xarit pour baalante ak donc mais yéen ñaar rek laa ci gis ah. am na keneen ku may gis ci son bi Rosso waroon na ñëw mais daam lu ko tënk moo tax euh, ñëwul mais euh, waroon na mu ñëwoon fii ci plateau bi moom tamit ngeen nekk ñett. ba di sax waaw Weekend Star moom tamit Sénégal ko bëgg lii moom noo ko bëgg moom <laughs> eh, daa bëgg ko am fit daa bëgg ko am fit waaye bu ñëwee na fekk ñeen ñu am fit tamit donc baax na léegi lan la euh, innovation bi maanaam euh, création son bi euh, war ci ànd parce que ñun ñoo bokk fi ñu nekk dañu war a ànd ci son bi ñu ñi fu mu jógee ki moom seen label wala yéen yéen a xalaat loolu fan la xalaat bi jógee donc son bi bon dañu si studio toog ñu gis ne ko war nañ def benn son bu nga xam ne nii ça parle di jégalu. ok euh, pour safante que euh, suñu mbokk yi ñëpp parce que euh, dañuy jégalu pour tout le monde parce que ci Korité la ñu nekkoon. ñu ñu jege si korité ñu war a jégalu jënee benn son jégalu la moo waral pour ñu indi fii baal ma bi nga xam ne la chaque année damay génne benn son bi nga xam ne day day ça parle mooy deuxième son nga xam ne dama ko génnee loolu ma dem studio def son bi bon gars ci seen bopp ñu def son ñoom tamit ñu bokk si ñu participer ci son bi son comme ça donc jël mooy événementiel bu bu way pour TikTok waaye pour gars yi kii ko pour bësal ko loolu bëri na ci ñu ko jël léegi ngeen jël moment bu baax mooy korite ngeen def ci jéggalu te ñëppay jéggalu xam ngeen ni son boobu dama koy dagg kon di ci jéggalu loolu lañ ci bëgg moo tax def son bi dégg nga ba la suñu objectif jéggalu la parce que son bi dañ ko génne parce que chaque année dañ koy def parce que dañuy génne yeneen son yu nga xam ne nii chaque euh, bon chaque année dañuy génne son bu nga xam ne nii ça parle di jégalu mais terewul ñu ngi def suñu suñu carrière musicale son bi euh, veille Korité la génn ko. veille Korité euh, man ah, the problem I have mooy euh, lan moo tax ñu xaar ba veille Korité di génnee son wu jégalu peut-être xam naa ne koor gi ñu def ay music ak stuff. right but then is it bi ñu woy ko before comme woy kii bi bu waa ji te ñu koy TikTok taay di di. Pama Pama Dieng dafa génn après nit ñi par cœur ko cram ko parce que soo xoolee hit bi nga xamante ne moom la def right après korité euh, dafa dafa indi benn parce que bu ñu nee suba la korité man maa ngi daw di lijjanti kër gi ak est-ce que tal naa pour euh, këru euh, benn son wala pour après lay doon bon like son bi dañuy bëgg génne son bu nga xam ne nii dafay nekk benn impact ci nit yi pour ñu pour ñu koy déglu comprendre nga mais ci koor gi mënuñu woon génne parce que dañu nekk ci koor mais bu ñu corité ñu anticiper son bi mu génn bien avant corité bi ci corité bi donc pour gars yi mu ngi déglu son bi ça parle di jégalu mais pas pour gars di def ay tiktok ak affaire yooyu. ginnaaw like loolu mooy waral. am na solo donc euh, fi ñu toll nii wax leen ñu seen ay euh, projet ak euh, lan la seen. label di waajaat euh, balaa ñuy dem ànd ak euh, Fanta Samira dugg ci biir waa ñuy la xam ni euh, mooy dundal suñuy bët du mës a suñuy biir bu la suñu àq dale Pape Samba Thiam nga xam ni ñun def nañ émission bi 3 mois te yow mosoo ko réaliser ànd ñeenteeg tonton mag ànd ñeenteeg imam Malick mi nga xam ni ku baax la du wax ay wax ju sew apulaay ñëw na ñoo ñëpp ñëw nañ kon nous on peut se de toi nga xam loolu rek tu n'es pas indispensable pour ñun yàlla na jàmm yàgg nga ni yéen fi ngeen nekk maa ngi xuloo fee waaw te ngeen bàyyi xuloo <laughs> ah yéen rappeurs yi yéen classe ngeen di def ñun ñi nga xam ne euh, ci ñun ñi nga xam ci animation bi ci mbalax la ne ñun ci wax ju sew la ne. Abe euh, dañoo nekk ci euh, label. Mhm. label bi nekkul ay rappeurs kese ñoo fa nekk certes am na ay rappeurs. am na am na am na ku mel ni Bakas ngi fa Babel di ko di ko di ko big up de passage ak Rosso mais man mi fa nekk je chante et je aussi en pulaar. Eh, est-ce que yaa comprendre donc nag ñoo ngi préparer ay projet ñoo ngi liggéey label bi te incha allah vous allez nous découvrir euh, très bientôt incha allah ci yeneen ci yeneen affaire yu gën a. am na solo ah, am na euh, a ñëw ba xam ni seen label lay mu bañ a nekk ay affaire de baalu ak bante ak parce que xaaruñu loolu ci hip mais euh, Abba du question du question de hip-hopeur ak ah, xam nga Sénégal bala nga laajuma la yow sa yoon nekku xam nga xam nga balaa balaa koor gi ku nekk gis nga di dëkk bi meloon mhm. jaxastoo sa Sénégal dañoo nekk dëkk boo xam parfois dañuy tooñante waroo leen ci woon profité ci non du question de du question non nu clash non a fete clash nag yow <laughs> ah tamit way leen ah, tabaski bi xalaat leen seen label tabaski bi ngeen way xar non ndéwénal ndéwénal la ñuy way dégg nga dégg nga <laughs> en tout cas mu ngi mu ngi nice euh, seen mot la fin yaakaar naa ni projet yi mu ngi ñëw. Euh, ak lan ak lan ak lan. ak yeneen bagages. Ah waaw mënut a ñàkk. Uh-huh. ay surprise ñu ngi leen di kontaane aba ko weltaari mawde mi salmini kadi euh, denndangala wiyoɓe mbiim e mbimami kadi wonɓe sénégal e mm-hmm. wonɓe caggal leydi a ah, vraiment communauté halpular o mi salmini denndangal halpular eɓe fof Abba di la kontaane di la remercier aussi ci opportunité bi ni nga ñu may ñu ñëw exprimer wu au nom de euh, Advice Music Group te incha allah ab lépp lu ñuy def incha allah duñ ko yëg te incha allah dinañ ci ànd ak vraiment euh, Weekend Star di kontaan baax a wax dañ ma yónni si yow nag sama benn grand bu tudd euh, Maodo borom Golden Shop. waaw nee na nga jaar fa ngeen gis. ziaral ma ko naa fa ñëw incha allah ziaral ma ko bëri naa fa ñëw baax a baax. ci moom rek loolu yóbban. Eh, eh, eh, <laughs> ñu ngi lay jaajëfal mais ak yow da ngay ngi lay jaajëfal. bon comme ni nga ko waxee rek en fait euh, like ñu ngi def suñu pare suñu benn projet euh, mixtape donc balay benn avant euh, projet bi aussi ñu ngi pare ay ay ay clip yi war a génn. Mhm. xam naa bientôt incha allah. donc pour gars yi dugg si page advice mi ñu abonné am na ay artistes yu dope mhm. nekk foofu ay bagages Super Dia Babel. Um, Euh, Bura everybody gars yi ñu ngi foofu ñu ngi def son yu dope incha allah gars yi nañu dugg foofu ñu abonné ci page bi. incha allah suuf incha allah. en tout cas na solo tabarkàlla ñun tamit euh, ñu ngi lay santaane euh, ñu ngi lay kontaane bu baax lil xaa gis nañ say daal yi nga xam ne émission bi mu commencé ba tey yaa ngi koy wan. gis nañ ko sama benn jiw. ànd ak Alioune sama benn bro bu nga xam ne sama jóola tamit sama jóola waaw moo ma jox affaire bi nii ma sol ko sama jóola maa ngi koy siyaar bu baax ak frère am Doudou maa ngi koy siyaar bu baax bu baax di sant parcelle bi ma jógee ñëpp ñëpp ñëpp saa bi gars yi ñu ngi taal seen télé di seetaan affaire bi maa ngi leen siyaar bu baax di leen nuyu say jóo tamit nice na say jóo bi nga toogee ci ah, plateau bi dama soxor bro <laughs> ay jëf Fanta Samira nga ni tey lan la ñuy lekk tey tam sax daa nice karkal la eh, yaa ngi apprécié waaw damay apprécié ay apprécié Didi keroog daf ma booleeg eh, ndaanaan boo xamante ne mi ngi tudd Aïssatou ah, mu créé li nga xamante ne mooy. sa élément la sama élément bi élément bi yaa koy kii mais ciy jàpp ci dama ko bëgg. jàllale sa élément baal nañu waxtaan. <laughs> lan waaw garaawuñu nañu waxtaanee élément bi damay sàmm sama mariage eh sama eh jàllale sa élément waaw léegi tooguma fi jàllale sa élément kii la jàllale élément jàllale sa élément. waaw boo taxawee foofu ñu xool waaw garaawul am na amul solo <laughs> donc. Euh, <laughs> maa ngi nekkoon fi nga xamante ne mooy ginnaaw chez Katia ah, donc ñu koy wax health in a box c'est-à-dire la santé dans une boîte ñi ngi yëngu ci ya ñi ngi yëngu ci li nga xamante ne mooy alimentation bu sain donc ma je dis un esprit sain dans un corps <laughs> dans un corps dem xool élément tout de suite ñu ñëwaat décortiquer ko sur le plateau naka jekk ma xam ni élément bi dina am problème élément bi dina ci ñëwaat léegi léegi ci kanam kii ni ma def keroog samedi du ma fi toog di ko xool mu mel ni. waaw waaw baal ma wax leen dëgg xam nga man naar laa duma fen mais damay wax li am. dëgg la waaw dangay nett kii da doon fecc feccam wax dëgg yàlla yëguma li sama ginnaaw moo xoole ba pare nag tout le temps day xool am ma mi am sori mbaa yaa mbaa déglu rek ah? ah ah noonu abaa daf doon xool naan naan mais xale yow lii tamit lan la Samira tamit. Hmm? ak ay photo wu yëpp sax photo wi suñuy photo wu nii nii rek. Eh, yow mën ngaa demaat toog sa place yow. mën ngaa jug demaat toog sa place. ak nga toog bala mën ngaa jugaat dem toog sa place. mën ngaa jugaat dem toog sa te xam ni te xam ni man li Abba di def moom la goor ñëpp di def xanaa Abba kay daa sincère rek di ko wane rek. ci li ma nekk la góor ñëpp ne. ci li ma ne la góor ñëpp ne. man maa sincère rek di ko wane. <laughs> nga ne lan yow fan la jëm tey comme kii bi ah, élément moom foo na ba élément bi yàqu comme foo na ba élément am yàqu yow yow yow yow tey sa la comme tey li fi indi. mbaa sama élément du yàqu tamit. ah kii foo na ba élément am yàqu. man dama leen di yóbbu rek. va et vient nga taxaw fee di wax ñeetoog di ba sa yàqu fu ñu jëm de. ADS dance mooy. Euh, xoole na kii xoole na ba eh, eh, yàq na élément am. bàyyi ma yóbbu leen ci fecc bi. ñu relax tuuti ngeen xool ay façon feccin ak ay façon yoo xamante ne xale yi ñu ngi ci mag ñi mën nañ cee nekk les tout aussi mën nañ cee nekk fële ca ADS dance ay Miss Aïcha. France qui est formidable parce qu'ils sont vraiment concentrés sur les élèves. Ils sont vraiment très professionnels. Leur but, c'est vraiment de faire progresser les élèves, de les encourager, de les euh, entraîner très dur pour que vraiment ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vraiment ça que j'aime à ADS. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment en train de... Là, je viens de finir mon cours, je suis en transpirer, je toute rouge parce qu'on se donne à fond fois et surtout, on s'amuse. Je suis à LDS depuis toute petite et euh, depuis on m'a entraînée. Si je suis une bonne danseuse aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et euh, il faut savoir que la danse, c'est pour tout le monde. C'est pour les petits, les adolescents, les grands. Tout le monde peut venir ici. dance maa ngi toog fi di fecc booba tey et franchement bi ma ñëwee dañ ma accueillir def ma comme si man fii la bokk te euh, voilà genre c'est vraiment ça fait vraiment du bien que ngeen ñëw fecc ak ñun on va bien s'amuser on va bien vous accueillir franchement ça va bien se passer et. ay tey dafa mel ni rek ñu indi tey ki am pecc. waaw ci AMPEJ laa nekk mu nekk nag benn institut boo xamante ni ñoom dañuy jàngale fecc mais en même temps dafa fun dafa am ambiance dafa am rythme parce que fecc yi am na façon yu nekk démb bi ñu demee dañu tombeek bii mu nekkoon ay xale yoo xamante ni ñu ngi ci hip hop ñu ngi ci afro ñu ngi ci yu nekk mais am na en même temps ay xale yuy def ballet ñu am 3 ans comme on am na pour 3 ans ba ba fu la neex mais fecc bi ma ci gënoon neex bàyyiwuma ñu filmer ko parce que fecc la boo xamante ni pour ñun jigéen ñi la ñun parce que fecc la boo xam ne da ngay sol sa ay talon lu mu kawe doyul nga tamiser sa lumière di ko fecc fu la neex ak nu mu la neexee. danse de la nuit lañ koy danse la nuit la mais c'est magnifique <laughs> pour dire juste que Sénégal am na. yeah it's uh, commercial la tudd donc euh, xale yi ñu ngi foofu. ñu nga koy def mais def genre lu rafetee noonu. bàyyi ma bu dee da ngaa def bu weesoo li bu weesoo li abaa di xalaat bàyyi ma bu def loolu noonu ci publication bi. Ah. bàyyi ma man zem. en tout rafet na te vraiment je suggère aux femmes ñu dem di ko def parce que da lay yokk flexibilité day dindi sa stress. ba pare da tax ngay xalaat yeneen daal day tax ngay am ay idée tamit ci lépp loo xamante ne yaa ci nekk day neexal sa ménage ah day neexal lépp daal. donc ay bii wala pour xale yi la xam nga bii ay ay xale ñoo si nekk boo gisee ay ñoom yaasin ñoo si nekk ak xale yi nga xamante ne bu ñu amee ay 17 ans 18 ans ñooy fecc clip yu gën a mag ak ñoo ko fecc ñoom yi en même temps petit gala seen petit gala ñoom mhm. ñooy ànd ak xale yi foofu di mhm. fecc ci seen clip yi mais di fecc aussi sur scène ak ñoom du début à la fin donc mu nekk ñoo xamante yàgg nañ ci Yacine mi ba muy ñëw je pense qu'elle avait ay peut-être 6 7 ans yàgg na ci tey mi ngi nii moom aussi elle a fait son témoignage mais pour sama genre gi approché leen Aïcha Thioune ngeen xam ko ngeen xamanteeg moom et ñu organiser ay cours yoo xamante comme ni ma leen koy wax rek commercial hills bi lay doon bu dee da am ay doom mun ngeen leen indaale parce que day am benn espèce de garderie boo xam dañ fay nekk ñu bàyyi leen ñu foo ñu ambiance ñoom tamit ñu jéem fecc et ñu divertir comme il le faut ci ay xale. donc mën nañu xam fan la nekk merci donc institut bi wakaam la nekk je pense façon moo am ku nekk sa niveau di nga ko xam et dinañ leen améliorer dinañ leen parfait dinañ leen perfectionner incha allah kii moom bu beneen yoon te boo demee interviewé leen ba pare toll seen page nga dagg ko daal ñu koy tegal pour ñu jàpp ADS a xam ne kii dee dagg page di ko teg comme li wax ni ko humoriste parfois dañuy égayer nit yi mais aussi la danse c'est fait pour nga nekk en bonne santé non seulement di reetaan nekk en bonne humeur gis nga allah donc lii moom xam naa ne sénégalais yi dinañ ci ñëw. exactement and then euh, comme gaal si ni ñuy bëgg dem génn dem si spa bi dem defi seen ay ongle and everything foog naa lii nii di nga wax surtout heels yi. Euh, marié yi femme marié yi dem euh, dajale ak of course parce que soo waxee ay casual exercise and stuff loolu <laughs> noonu ak yooyu. non defuñu par contre kizomba kizomba c'est autre part mais ñoom li ñuy def. c'est plus sensuel que que du kizomba. ah jërëjëf oh, sensuel na mel na ni mais flexibilité xam nga tawee ko dama la. xam nga aspect boo xamante ne mooy fee mu fecc. Eh, yow mii mooy mooy reetaan booy fecc da ngay ree te da ngay gis ci seen kanam da ree loolu am na solo ah. li ngeen di wax ni yëpp am na solo mais man euh, je pense que ci émission la nekk. waaw quand bu ñu ci nekkee ni ñëpp di indee seen idée man mën naa indee noonu sama idée. Euh, donc tey euh, bu ñu doon dem. Mm. ci fecc bi ñun pour xool li xew ci fecc mi. Mm. ku ci nekk sañ ngaa indi sa. cobaye bi nga xam ne yaakaar nga ni moo la war a mën a feccal fecc soo ay cappe yu gudd loolu mën na ko organiser Aïcha mën na organiser lu mel noonu non dama lay expliquer de Aïcha mën na organiser lu mel noonu avec des couples Uh-huh. ça peut se faire eh, couple daal laa wax man waxuma kenn ku yóbbu ne mbënd kii ma couple daal laa ah, boo demee ah, toog organiser la tamiser la defal la sa lumière ba normal. yow ak sa jabar eh, eh, moom ak sa jabar la. ndo maa yow <laughs> feeñ nga yow samedi tey di nga. sa sami euh, sam man ak yow euh, sa cappe euh, lu mu gudd doyul bu fekkee dañu war a fay didi. aw ma jom <laughs> didi bu fekkee dañu war a fay ci mu doon facture bi je mais sam prépare-toi à te taper pexe ba di di ah, lan la ñuy. Ah, bi et puis prépare ton élasticité parce que il faut ngi ci pare naa maa ngi. déet pare eh, ay eh, eh, <laughs> nañu dem xooli clip Fallou si te ñëwaat léegi daal di yeggale ak moom tarkal mu indil ñu instrument boo xam ni day raad ñu gis ko au Sénégal indil ñu instrument boo xam ni xale yi dañu ko bëgg lool lool lool mais dañ koy jàngale à l'école xaw ma école yëpp dañ ko fay jàngale waaye instrument la bu neex bu doy waar et bu euh, bu extraordinaire quoi mais ñu dem xooli clip bi laata ñuy ñëw waxtaan ak suñu invité ayca Fallou Seye. ayca mu ngi donc euh, ñu ngi lay nuyu baax Fallou. maa bu baax a baax a baax yéen ñëpp ñu nekk ci plateau bi. ayca euh, donc tey mën nga ñëw présenter wax ñu kan mooy Fallou si waaw Fallou Seye benn doomu Thiès la. waa juddoo Thiès màggee Thiès yaroo Thiès. yàgg bëgg aar. jàng ko Euh, comme comme ni ko ñëpp jànge euh, ba pare def choix wu jàng instrument yu raar. Mm-hmm. lu ci mel ni flûte. Mm-hmm. mën naa ni bokk naa ci jeunes yi ko njëkk a def. parce que bu njëkk ay paa lañ daan gis ñu di ko def. ay paa daan flûte. sol ay caay yu yoo xamante ni di mm-hmm. ma jàng ko ba pare comprendre ko. waaw ba pare yàlla dogal ma teel a voyager aussi di ci jommal tubaab yi. ndax pour man nit ki li nga ko mën a wan. mu jommal ko rek mooy moom li mu amul. te ñun suñu culture dafa riche te maanaam ñu bëri xamuñu ko tey ji lu ndaw lii rek mën naa ne mën na tukkal àdduna. Mm. waaw aussi ma boole ko aussi di def acoustique maanaam di di bégal jàmm ñi. waaw kooku mooy fàllu si. ok kooku mooy fàllu donc yaakaar naa ni euh, da fee teel a génn teel a dem voyage yi day euh, waral ngay liggéey ak ay tubaab foofu euh, ngeen di def ci ay son yoo xam ne yow sa instrument bi nga xam ne ñun ñoo ko moom moom ngay yóbbu foofu di leen ci def yu yéeme ñuy ñuy jom lu tax indiloo ñu loolu. non pourtant fii dama ko fiy def. Mhm. am na ay son yoo xam ne dama ko génne ak flûte bi def naa fi lëmbalu flûte. lan lëmbalu flûte mu toj àdduna. yow mii si lëmbalu flûte. lambalu flûte gi lan la. flûte la non non flûte la ak tama ak pot non pot non li gën a graaw sax mooy. sama kobaay la lëmbalu flûte bi sax bëgg naa ñu def ko fii ci plateau bi. sama kobaay la kii non si Pape Samba Thiam euh, Pape Samba kaay ak euh, kaay animé plateau bi. nee na avant ñuy avancer ne kii essayé lëmbalu film bi. Fanta ju euh, Fanta ju fecc ko. yaa présenté wala ma présenté oui ma Aba Aba xam nga nuy def. tey lii laa lay may tey su ma la ko mayee dootu ma la ko mayee aji Fanta. Aba <laughs> oui ma xam nga nuy def. Ah. su ma nee kuru wa kuru wa kuru wa kuru wa kuru wa kuru ko ngeen di geng geng moom mën nañ ko. jàpp jàpp ma ni moom la. may ma Fallou Fallou Fallou Fallou tax may ma naan. geng moom yomb na non lëmbal ji dafa toj àdduna. Ah, nga ni waat nga ni su ma ne kuru wa kuru wa kuru wa kuru wa kuru wa kuru wa yu di gege. waaye yow eh, eh yow bul tàcc yow yow bul ne gege de yow yow ni nga def gege yow ñun ñooy def gege yow. dégg nga waaw. ay ñi déggul. <laughs> léegi ñu ne gegañ de laa ilaaha illallaah yow lii lañ la sant yow yow sant ñu la lu compliqué nga fi def loo mënul ac nañ def ci wan Fanta yow lañ yow laay wan ah. Fanta jegeng jegeng Fanta Eh, gang gang mais nag mais nag ci kanam bu ñu ci kanam dañu naan gang gang ay waa gang gang gang gang gang gang <laughs> en tout cas am na solo donc euh, ambiance la euh, boo xam ne ak fluide bi kese euh, mën na ko def. si si c'est compliqué uh, affaire yi bi damay faral di uh, ma gën a nekk xale soo daan seetaan uh, film indien da ngay gis ne indien si dañuy faral di use ñoom itamit fluide ndax film rek la wala lii dina mën a attract jaan and stuff like wala film rek la woon. non non ñoom ñoom seen façon fluide ak ñun suñu façon fluide bokkul. seen film yi ak samay wax ñoo yem de. waaw ñoom bokkul ñun fluide yi boo dee xool pël yi ñoo ko doon utiliser bu ndaan sàmbi mm-hmm. te duñ ko utiliser comme façon de. communication. benn moyen de communication la woon te boo xool flûte bi dafa dafa kéemaane euh, ñetti tur la am te ñetti tur yi dañ ciy génne son yi nga xamante ne nii bu dee flûte moderne bi da nga ko ciy am. loolu mooy wane ne Afrique yàlla daf ko may talent. li ñuy génne ci lii maanaam nit mënu ko imaginer danaan lii mënta ne doore mi sol lépp xam nga da nga ko ciy am. maanaam man damay fonk tout le temps wala damay bëgg tout le temps ñuy favorise suñu instruments traditionnels yi fi mu ñu mën a yóbbu dafa bari li ci mën a def dafa bari waaw lii nii maanaam damay joué sax tubaab di jooy. mais li ay prestation rek euh, la mën a def ay 5 de 10 minutes maximum wala mën nga cee woote grand théâtre wala événement boo xam ne yow rek koy def ci fiit loolu est mën na nekk. lii yow kese mën nga ko ci def. une heure une heure de temps yoo xamante ne nii concert flûte am ay accompagne ay balafon. ay ay la parfois du ñàkk aussi nga def sa yoo xam ne solo lay doon. yow kese mais da am ay after work yoo xamante ne bi nii xam nga nit ñi dañuy mën a toog di ko cons di ko déglu. Mm, mm. di déglu loo xamante ne xam ne lii c'est traditionnel lii c'est Afrique. Mm. man loolu laa gëm loolu laa bëgg. mais mais à par exemple musique bi ngay def à l'étranger à acoustique soirée man laa commencé percussion. man dama daan joxe ay cours percussion. Mm. waaw te damay yox benn affaire boo xam ne rare na nga gis africain wala jeune boo xamante ne bi nii euh, dajale na instrument yu mel ni kora yu mel ni euh, flûte. Mm. yu mel ni guitare lu mel ni jëmbe. balafon wala sabar non du ma balafon mais maanaam mën naa joué six instruments africains yoo xamante ne bi nii rare na nga gis sénégalais bu koy joué. ah si ku mel ni kora. kora dafa jafe. Hmm. man dama koy joué damay joué flûte damay joué jembe damay joué sabar damay joué euh, tama damay damay joué guitare damay way. macha allah loolu parce que dama def choix wu nekk artiste kon waruma bàyyi dara. Hmm. pour man dama war a complet parce que mënatuma nekk mécanicien mënatuma nekk menuisier kon art bi nga xamante moom laa am. kon foog ma jël sama temps def ko ci. xëy di jàng damay jàng lii bi ma koy commencé. ñu bëri dañoo wax naan dof na. Hmm. mais tey jii yàlla lu ne suñu borom bi moo ko ci sut suturaal te lépp li ma ko may rek mooy gëm sa bopp. xam nga nag ak fluide nag il faut nga am courage dëgg nag toog di mbiib. xam nga waaw waa kër gi di añ ngay mbiib ñi ñi reer ngay mbiib. parce que fii euh, maa ngi gis sànq bu mu koy def dama sentir ne euh, dafa am lot of energy bu muy génnee fii nii. Euh, léegi side effects yi lan lan si sa lungs yi. non fluide wax ngelaw li ci biir lay lay lay lay jógee. Mm. mais danga koy téye pour mën a def longue note. Mm-hmm. waaw koy téye mais day wax. boo xoolee tey ji yoonoo tudd Awa Gaye tey ji mën naa ko ci wayal loo xamante ne bi nii lépp ci flûte bi hmm. boole ko son bi son bi ajë <laughs> ajë ñuy wax sama noppi rek laa bëgg ñu xam ni son bi dafa fort hmm. ci sama nopp bi pour ñu bàyyi ci xel rek waaw waaw waaw li ñuy wax dafay fort waaw tey jii ku pare woon pour des formation bi maanaam sa élèves yi ngay ñaata temps lay durer non instrument kenn mën ta wax ni lii une semaine deux semaines trois semaines non instrument da nga koy jàngal te lépp répétition la. Mhm. ça dépend ci yow ñaata temps nga ko bëgg a jox par jour. ok ji bu fekkee une de temps nga ko jox du bokk nga xamante ni cinq la koy répété par jour. instrument waaw temps boo ko jox rek day dem ba da koy yàpp. te boo ko bàyyee da bàyyi noonu. soo ko bàyyee da bàyyi. ayca ayca Fallou ñu ngi lay kontaanee baax sant nañ la gërëm nañ la bàyyi la nga wax sa mot de la fin. waaw man yi fan la toll. waaw projet yi boo xamante ne nii fi ñu toll nii génn na. fii la waaw no fële laa ko génnee nag mais xam naa dinaa ko indi fii Sénégal. Mm-hmm. aussi euh, di wax ni di nuyu waa Thiès gi nga xam ne fa laa jógee di leen mm-hmm. gërëm di nuy sama soxna di nuyu ñëpp. waaw di wax ni nag ñi nan préparé ay soirée yoo xamante ne nii flûte bi lay doon ak euh, ak acoustique bi waaw di leen nuyu yéen ñëpp. di leen siyaar di kontaan tamit ci invitation bi di nuyu aussi Pape bu baax moom jàpp na ci bu wér sama grand la sama waay la moom suñu grand la moom suñu waay la si mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. xam ne dañ euh, moom danaa ñu kaay def rek ñun ñu daal di def du ñàkk ñu invité la ci plateau boo xam da indi instrument yi indi euh, orchestre bi ñu ànd ak yow loolu laa euh, bëgg parce que Pape Cissé moom mëna ko dara def leen rek la lay wax donc bu ko defee dañu dem ci euh, beneen rubrique ak euh, beneen yeneen i élément yoo xam ne balaa ñuy jël la diva euh, nga xam ni dafa war a jël culture réew mi yóbbu ko fi nga xam ni moom mooy ca pays de l'oncle Sam ah dëkk bu ñëpp bëgg tabarkaal la di sama yaay nag di sama xarit ñu dénk ko sama mag di sama conseil di grand boo xam ne du may dara tabarkaal la balaa mu ñëw ci plateau bi dañuy dem xool yi éléments yi nga xam ne moom nga ñu indil loo waxtaane tey nga ni waaw tey moom euh, événement bu mag laa waxtaanee tey événement boo xamante ni je peux dire euh, émission la mais ñëpp dañ ko jàppe spectacle bu rëy dañ ko jàppee euh, événement bu mag a mag donc ñu dëgmal ko muy vendredi ma jël quelque ay affaires yoo xamante ni jaar na fi booleeg quelques secrets yu ndaw mu ñu génne lépp waaye quelques secrets la ci répétition bi ñu dajale ko indi leen ko ñu dem xool ko ak Pape Samba dellu si waat léegi ci plateau bi mën ci yaatal. ay ci mu ngi noonu donc élément bi tamit euh, wax nañ ni dafa am problème tey seen élément yi euh, dinañ ci wus ay sunguf élément yi. jox ko loolu moom la ñu waxoon. mu nekk di jongle di def li ka sama moom laa ko tey man mi sama yow ci moom nga jàpp tey. ko dugg dafa ñëw rek ñu hmm. def ko la grande réalisateur. Eh, oh Pape Samba Thiam. man xamoon naa ne lii dina la dal Pape Samba ni nga ma attaqué bi ma egg see léegi léegi. Pape bu tontu bu tontu kenn Pape Laye wala Maaw Cissé ba tey. waaw ah, kon waxatu ko wala El Hadj Malick ayca euh, kii euh, mooy chéri Mormane tabarkàlla la diva à la voix d'or tabarkàlla xoola eh of mbay ni nga jëlee sama yaay ji kontaan daa sañse of mbay jiyaar ko Amérique ah, ki nga xam ne moom lañ ko dénk mm. sama mag gi nga xam ne moo koy denc nga xam ne kii bu amee élégance c'est normal kooku il est élégant tabarkàlla jiyaar ko ci suuf of mbay jëlal sama yaay ji nga xam ni euh, moo neex bokkal fi ngeen dëkk Ouest Foire la dëkk jàpp ñàmburam kenn dégg ku ci dara dem studio way génn togg yekk la ay gorom dimbali borom këram yàlla na jàmmam yaay kii mooy yaay Fallou salaamaaleykum yaay booy maaleykum salaam Abba ñu ngi lay ziar maa ngi delloo ziar ay te ñu bàyyi la ak téléspectateurs yi bu baax di nuyu ñi ma partagel plateau bi maa ngi nuyu déjà Didi di nuyu Eva di nuyu Samira bu baax ah, di nuyu tamit sama frère mbalakat bi nga xamante ni moom ñaawlekat laa ko tuddee. waaw ah, gis nga day mbala ñaawlekat la gis nga. di la di la di la bëggee bu baax Abba di wax rek ni man dama kontaan ci yow yow yaa neex a dëkkal ndax olof nee na euh, xam darajey nit day yokk sa marta ba ca da nga xam darajey nit xam nga yàlla li li yàlla defal nit ki boo ko xamee respecté ko ci rek day yokk sa martaba mm. kontaan naa la bu baax di nuy Sénégal yëpp nag sama fans yi euh, sama famille maa ngi nuy ñëpp di am mbégte yaay ñu gis ni da ngay am événement bu mag booy waajal eh, gis nañ ni tamit eh, am na single boo xam ni moo mujjee génn loolu yëpp dañu koy waxtaanee mm-hmm. eh, lan mooy projet yi lan ngay waajal single bi génn ñu defaale promo bi ak fi nga xam ne foofu nga jëm parce que yaa ngi fekk ay ndaanaan <laughs> ay doomi réew mi ngay fekki waaw Aba mm-hmm. ñu ngi jëm nag incha allah le 29 bi ñu jëm ñu dëgmal ñu ngi ci jëm Atlanta mm-hmm. fu ñu miin foo xamante ni dem nañ fa demati fa demati fa miin fa lool di def sargal jigéen ànd ci ak Ahmed Fofana production mm-hmm. bu ñu jugee foofu la 5 juin ñu ngi jëm Columbus waaw Ohio nga xamante ni ñoom tamit d'habitude mariage bu fa am daba sey juge Sénégal tegi ko fa mm-hmm. donc ñi ci woowaat rek nag sénégalais yi ndax déjà ñoom gis nañ seen taxawaay ci li nga xamante ni mooy programme bi bi ñu ko dëgmalee ak léegi mm-hmm. euh, état yi Dallas ah Rhode Island mm-hmm. ah Cincinnati ñoom ñëpp ñu ngi waaj jëm Atlanta buñ jógee Atlanta le 5 juin ñu ngi waat Columbus ànd ci grande dame Columbus yi loolu mooy projet bi mm-hmm. waaw dañuy def tour mm. incha allah waaw mm. mm-hmm. mu nekk loolu euh, soirée bi eh, yaa koy joué ak sa orchestre wala ay euh, playback la lan moo fay xew non dañ koy def live parce que am na loo xamante ni bu xasee ba am rek danga koy professionnaliser. Mm-hmm. Euh, dañuy jukk ak groupe Daba Seye mm-hmm. waaw Aba kii ma toogal nii Daba Seye the first time ma meet ko uh, yéen a ma boole woon ak moom mm-hmm. uh, mu bokkoon si ñi nga xamante ne ñoo ubbi uh, rubrique bi may def fii nii say weekend start mm-hmm. mu doon jigéen bo il faut ma wax ko yee <laughs> ku ñàkk ki ñaan ku baax ndaxte dafa ma boole ak ki nga xamante ni moo koy solal fu mun munti dem si àdduna bi kooku moo koy solal di Nogay Moro boobu ba tey Nogay musut ma ñawal tissu boo xamante ne moom du ko sol yu am valeur la may jox te daba ba tey mosuma wax téléphone ne ma yow doo ma sax gërëm wala doo wax nii doo wax naa euh, man nekk loo xamante ni dama ko apprécier torop ma ni xaaral ay must say it and say thank you so much euh, nit ku baax la man bu yuuxoo rek ma daan naanaan la léegi ñu ko may léegi def euh, ñu ngi yaakaar ni daba actuellement mi ngi def ay répétition kon dinañ xaar ay son yu bees foofu ñun ñi toog Sénégal mën nañ xam li xew foofu waaw xam nga dañ fi bàyyi nag liggéey boo xamante ni ñu ngi ko def ak Isabes mm-hmm. Euh, liggéey projet la bu ñu nekk donc yàlla dogalul bi ñuy dem mu pare mm-hmm. euh, comme ñun toujours rek dañu nekkal réew mi drapeau bi dañ ko war di jël chaque jour di ko yóbbu feneen euh, du wees bu ñëwee ñu won leen lu bees li nga xamante ni Daba Seye def na ko amuñu temps pour toog rek di di di di nooyal ñun dañu war di liggéey fi ñu toll ci lañ nekk mais événement bi am Amérique ni Atlanta première fois bi la wala amoon na amaat fa yaa ngi ci soog a dem wala mu soon nga cee dem man Amérique xam nga abaa sama dëkk la. foo miin la Amérique ma eh, miin la li may wax rek 17 pays. Mm-hmm, mm-hmm. nga def ko mais sama dem li ci ëpp Amérique la. Mm-hmm, loolu yaakaar naa ni njukkal laa leen di delloo. Euh, li may sant yàlla nag mooy bi producteur amee xelu jël Daba Seye yóbbu ko fa ak groupe am loolu mbégte la. mais defe naa ni lu tolloog 7 ans mariage bu am Amérique Daba Seye moo koy woy donc. sama sama dëkk la. mais sa production dañuy gis Mouraar ah dañuy gis sa production Mouraar euh, te àdduna yëpp di wax la voix d'or ah. Euh, la da waaw waaw waaw la diva à la voix d'or donc mais waaw mais dañuy gis sa sorti Mouraar loolu organisation le staff la wala grand mort moo naan na génn heure bi na génn pourquoi duñ la gis lu baree baree bari. si abaa xam nga man ab bi sëñ Fallou laa mm-hmm. déjà. Mm-hmm. te sëñ Fallou ne na tepp tepp moo gën yuréet. waaw comme ñu ngi fi di dund. ñaan yàlla dund gi yàgg. ndànk ndànk rek dafa gën li amoon solo ci ëpp solo mooy xeex nañ ba ñu xam kan mooy Daba Seye mm-hmm. euh, ci ci wàll wi nga xamante ni moom la féete muy woy tey boo nee Daba Seye Sénégal àdduna yëpp xam nañ Daba Seye euh, ca loolu defe naa ni moom solo li ci des nag day ñëw ndànk ndànk ñu ngi ci liggéey la yoon la mm-hmm. carrière dafa am mm-hmm. donc sa carrière nag da nga koy maintenir parce que image nit ki dafa bokk ci carrière mais ñu xool ba tey da ngaa bëgg li nga xam ne mooy traditionnel ah. tey bëgg nga euh, bëgg nañ di dem di la fekk ngay woy ay mariage ay mm-hmm. ngénte ak yooyu dafa mel ni loolu mooy sa fort. Mm-hmm. gis nañu ñu waykat yu bari ñu ko. waaw loolu li ma ko may dama tarbiyu. Mm, waaw. dama tarbiyu dama jaar ci ndaanaan yi ca ma <laughs> la euh, lii dama gis euh, couple yi général yi suñuy bokk liggéey. Euh, lu ci ëpp euh, du dem. Mhm. te booba ba tey macha allah euh, gis naa ne fi nga ko teg foofu la. Mhm. léegi exemple tey boo xuloo woon ak moo parce que du ñàkk and stuff like that <laughs> bu ma wax nag professionnel la ñuy doon. des fois nan nga ni dundee li nga xamante ni mooy vie couple at the same time ngeen ni bokk liggéey. waaw Eva eh xam nga vie couple bi leneen la. Mhm. loolu loo war a respecter trop la. Mm. donc mais comme li nga wax des fois bu xuloo amee liggéey bi. liggéey bi la xale yi déglu non ma ne ma ne <laughs> waaw c'est professionnel xale yi déglu leen euh, li nga xamante ni mooy sëy bi loolu lu jiitu liggéey bi la waaw mooy priorité man ci man bokk mm-hmm. mais bu loolu amee seytaane am du tere bu ñu nekkee ci liggéey bi dañuy fonk liggéey bi après bu ñu paree ci liggéey bi. doo biiñ wala xëcc kanam non du ma biiñ. loolu <laughs> fa jaaree bu ngeen nekkee ci liggéey waxtaanaale. des fois sa jubóo am sa yenn saa yi sa jubóo am ci. j'ai juste une question pour Daba mooy maanaam euh, yaa ngi dem Atlanta yaa ngi dem Columbus dégg naa nga woo Waaroo daal la ne tout mais doo jaar New York parce que seet naa ñu bëri New York c'est la base quoi. fa la Sénégalais ëppee mais Amérique nag gars yi dañuy jóg di dem. foo nekk mën na fa fekk gis nga xale bi fi xale bi fi jógee léegi. Amir euh, non non pas Amir. Malick Malick Malick Malick dama tëgg New York Omar Diaw Seck yóbbu woon ma fa man ak Babani bu Mali Ami Kami Soxo bu Guinée loolu def na deux ans ci ginnaaw ci laa gisee woon xale bi yàlla dogal ma jugewaat senegal dem Philadelphia tasewaat ak moom ca loolu yëpp liggéey moo fa yóbbu donc dama jaar New York avant may dem ci yeneen état tëgg naa New York ak groupe Omar Diaw Seck mi may seetaan moom ma fa yóbbu Euh, liggéey day toll foo xamante ni fu ci nekk base bi mu am nga xamante ni moom moo waral ñuy wax dëkk ba. Mm. da nga koy njëkk a am déjà bala ngay am gox goxaan yu ndaw yi. te foo mën nañ la fa fekk. te nekk mën nañ la mais maman damaa gis damaa gis benn affaire. ci ci yow dafa dama nekkoon AFM studio mu jàkkaarlook sa kër. Mhm. donc ma daan gis complicité yi ngay am ak artistes yi. képp ku war a ñëw AFM studio bala muy dugg si. Mhm. muy artistes yëpp waykat yëpp ñoom Sidi Diop Pama et autres bu ñu daan ñëw sa kër la ñuy njëkkee. Mhm. tooñanteeg yow ci buntu kër gi waxtaan ak yow ba ànd ak sa doom bi fàllu ñëwaat biir studio. donc complicité boobu qu'est-ce qui fait déjà caan boobu noonu ci secret wu boobu déjà entre yow ak artistes yi. waaw xam nga Euh, Mame Balla dafa am lu am solo li am solo mooy li nga mbappat ba yëgsi ci fi nga yëgsi yow boo baaxee da ngay am fierté nangu ñu la ci fekk si parce que booy xool li may wax rek gis nga ñu ni jiitu woon ci aar li ñu am ci aar ñun duñ leen ci dab ñun fexe nañ ba li ñu am ci aar ñun dañu ñaan yàlla suñuy rakk dab ñu ci mm. mais lépp ci respect la Sidi Diop Pama Momo El Hadj tar ba mm. sama ay doom lañu yaay rek lañ may wax duñu dugg ci sama koñ ba mu génn ca dugg ñu ci man dañu ñëw sa des fois am addiya ñëw toog ak man waxtaan ak man donc loolu fort ci man trop am complicité boo xamante ni ci sama doom ji yi nga xamante ne mooy fàllu ma am ko moom rek ci góor noonu la Wally Seck mel ci moom day dawal otoom ba ci sama buntu kër bi ngi may seetaan ñëw jël fàllu yóbbu ko nee naa ko da nga yàq fàllu parce que daf ko yóbbu ci gab yi jox ko xaalis indiwaat ko xam nga ca loolu dafa fort loolu lu foor la ci man euh, dama tarbi nag am ñaan ci mag ñi donc ñoom tamit dama yaakaar ni loolu la ñuy sàkku ci ñun ñi leen jiitu donc complicité la lu normal la yaay dama foog ni euh, émission bi euh, yoon yow la ñu waroon àndal tëj émission bi waaye dañoo am invité boo xam dafa ñëw en retard donc te fi mu jógee dafa sori donc te mënta ñàkk nga ñëw ci plateau ba jug sinon rek euh, kon ki nga xam ni moom mooy Eva dina ma gaañ. <laughs> Mm, yaay nga ni der rek xool. Euh, géer gu la neex géer gu la neex. Mm-hmm. fee nga jëm ñi ngi la ñaanal nga am fa ndam. bu baax a baax waaye euh, Samira ci lay profité rek di jaale kenn koo xamante ni dafa foor ci man. Mm-hmm. muy Serigne Xali Sissoko mu nekk ba Italie yaayam génn àdduna ma koy jaale waa Thiès yëpp. di jaale sama rakk tamit Aïda Samb maa ngi koy jaale parce que dafa ñàkk yaayam ñàkk papaam mm-hmm. loolu nekk lu metti ci temps bu gàtt mm-hmm. ah, loolu for trop mm-hmm. di jaale bu baax soxna màgget Mbacke di leen wax ni leen yéen bu ñu señoon ci bànneex rek lañ leen di dégg waaye yàlla mooy dogal ah, kontaan naa nag Abba ñoo gën a bëgg kontaan naa trop ñoo gën a bëgg fari waay li ngeen roog oh, mambala awa هي دولتو ولقينا قيو هي هي jokoñ waaye yabuma la ah sama rakk ci gàcce nga laa ma looy dugg di nga ñëw ba ci moor mormaane waxtaan ak moom xebul loo xoolal day teg tànk bi ba ci yàgg teggi ko tegaat bële non mais grand tooga benn place waaye yow tamit lii ba jàmm la ay te kii mooy yaayu fàllu euh, tarkala neex a am ci plateau euh, bu ñëwee nga sentir ci moom ay bagage yu bare bari bari facette donc ñu ngi lay ñaanal yàlla nga dem ci yoonu jàmm ñaanal la yàlla une très bonne continuation ñu dañoo soxla lii ci culture bi noo soxla ku jël suñu yëf et puis mën ko yóbbu te war ko yóbbu ba pare jël ko di ko yóbbu donc soxna Daba euh, yow loo dund rek doyul yàlla yàlla yokk say xéwal ayca donc invité bi euh, warul sax ñëw ci yoon euh, warul woon ñëw jàll ci plateau bi mais mënta ñàkk fi mu jógee sori may leen ñu clip bu euh, Abu ak Fafa ñu jël Fafa léegi ci biir plateau bi daal waxtaan ak moom Sénégambia Sénégal ak Gambie benn la nañ dem te ñëw ayca. pour ñu def ma suñu benn la bu ñu li nga xamul mooy maa la bëgg wax naa la ko ci làkk bu ne bu doon sabar maa yi tëgg raw rëccëgin tàcc li ma leer mooy dootuma sëgg ndax coppee gi day jóge fu ne ci man te day mujj ëpp gas mu tàng socc xanaa xamul leen dañuy nuru ñaar tey kenn Sénégambi lu yendu fii fanaa ni fee maa leen bëgg bi Gambi nag dafa sori lool juluma vol damay jéggi baak waaye lu mu guddi damay yegsi xanaa wax ci jeex tàkk maa ngi dem fi ma miin ba faate ma kóllëre ginnaaw lay féetee maa ngi dem fi ma miin ba faate ma kóllëre ginnaaw lay féetee sama paradise li ñu dund dafa neex li nekk ci sa xel moo nekk sama xol I need you in my life and forever I'll be there Gambia réew Sénégal bu ñu kenn xañ sama xel nekk ci Gambie dëkku Fafa yes mbëggeel nag fu ne lay feeñ amul géer amul géwal falewul melo ki xeer ñëpp ko wax du bees waaw abu foog ma ñëw biir Gambie tey mu blow dox ci jàmm dox ci mbëggeel man maa leen di delloo njukkal yëkkati leen seen loxo may dégg ngeen di fata xam ayca mu ngi noonu donc euh, am na solo euh, abu ak Fafa euh, from Gambia mais nag dafa mel ni tey abu ñëwul Euh, tey Fafa rek a ñëw. Euh, xale bu baax tey ñëw na ci plateau bi. xale bu baax ñëw na ci plateau bi. Ah, mami mami mami problème baa ngi soog a tàmbali. Eh. mais kii am na juróomi at de. waa Gambie xam nañ ko Sénégal xam nañ ko. waaw juróomi at ma ki loolu moom Sénégal ak Gambie yëpp xam nañ ko <laughs> loolu moom loolu moom yaakaar naa ni Sénégal ak Gambie yëpp xam nañ ko plateau bi moom toog naa seen TV wax ah. toog naa ci. 2STV bi wax ko. fii tamit toog naa fi waxaat ko loolu moom yaakaar naa nit ñi mis nañ ko. mis naa lii moom yàgg na moom lii moom yàgg moom mi am na ko. non musuma nopp kii kii moom musuma ko nopp. waaw kii moom musuma ko nopp. kii damay bëgg échantillon la rek. <laughs> garaaw ay ci salaamaaleykum euh, Fafa yaa ngi ci jàmm. maaleykum salaam Abba ma chérie. mu ngi dox ah, moo xamulee. waaw bàyyi ma. waaye nag bul tax bul tax ñu kar ma. proposé naa ba sonn nga bañ. Ah. nee naa ndax ma yónni sama nijaay mu ñëw sa kër nijaay nga naan man nañ xool. nag Gambia dafa xaw a sori ah. te am nga ay mbokk fii <laughs> en tout cas ñu ngi lay kontaane bu baax a baax a baax. maa gën a kontaan teew macha allah xam naa ne lu mu xat-xat dañuy fexe teew. waaw ah, waaw mënut a ñàkk macha mm. na moom leen ngeen def bu baax ah. di kontaan ci euh, invitation bi di nuyu waa Gambia waa Sénégal bàyyiwuma kenn di ñaan yàlla jàmm sax ci diggante Sénégal ak Gambie. ndax benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. ndax clip bii ñu def nii ànd ceeg suñu brother Fata Fata Abou tamit nekku fi mu tug voyage yi woon dem Angleterre Fata Fata tamit nekk fi man nag ma teewal leen ñëw toog pour waxtaan ak askani Sénégal ak Gambia mu nekk projet boo xam ne yaakaar naa ni moom mu jéggéen euh, mais euh, am na looy waajal am na yu ngeen di waajal sax laay wax ak euh, yu war a ñëw donc promotion clip bi nga xam moom ngeen def wax ñu euh, fan la idée yi daal jóge woo Fata Fata war a ñëw ngeen ànd ak moom ak son bi nu mu tudd fu ñu ko defee ak euh, lan moo tax ñu def son bi. waaw li waral loolu mooy yomb na ndax Sénégal ak Gambie benn bopp la te Fata nekk koo xam ne di naan macha allah. Hmm. ñu mës a dajee benn soirée Mbaye Dieye Faye maa ngi koy nuyu sëñ Thierno Birame Gueye Kewé Awa Diagne. Ah waaw am lu ñu fa def lu sew rek mu ne ma I love your voice and bëgg naa xam naa ci future bi dina def yàlla dogal mu ñëw Gambie ñu koy waxtaanee nii rek dem si Hakim. Mhm. xam nga foowee ko nii rek moo indi Sénégal yi. Mhm. xaw ma ndax miin nga kii. Mhm. Euh, fant waaye euh, man ak Awa Gaye xam nañ ko ak euh, Didi ma lay toog. gis nga ki toog fii ba jóg. ñu ngi ne der. waaw akay kii yaakaar naa ni méngoon nañu euh, ci loolu waaw waaw waaw mën nañu loolu dañoo mën euh, wàllu traditionnel euh, dañoo mën benn benn dañu ko mën gisoon naa ko bien muy ñëw moom seetaan naa ko clip bi déjà macha allah c'est couleur couleur yi rafet na et tout ça mais faafa da ngay xam ne que am na benn voice bu comme comme ki fi jógee balaa ñu yegg suñu waxtaan ah. waa ni yow ki faafa utal loo ñu may balaa ñu yegg suñu waxtaan pour mën a may baax dama la woo pour wax la not naa lay man dama la woo aba to say I love you I love you too yaa ngi di problème famille de ah. yëgalin yaa ngi di problème famille yëgalin bu leen faale ndax man daga naa ma génn ñu kar kenn du la kar kay mu ni kar maa jël rek kooku du kar day ñibbi ay man dama la woo pour wax la nopp naa lay man dama la woo to say I love you yow chéri chéri ah chéri aba man dama la woo waaw awa gay to say I love you. C'est moderne ça. woyal abu sa frère bi nga xam ne yéen a bokk nday hmm. bokk baay bokki maam woy ko ci traditionnel maanaam nga tagg ko nu xool problème baa ngoog fii ak fële ayca problème baa ngoog woyal abu woy leen ko daale daali waay daale woy leen ko daale aw foofu daale abu foofu naan yegg defa dama yi di ba fajaree fa fanaan yëkkate fa tamay di jiin ba fajaroo kon daali daali daale daali waay daale sambay mbayaanu ma way ku yaa ngi dégg déglul sambay mbayaanu njuufe pour balay ñaan kenn du njëkk nangoo jël ci leen jànge way ci la ñu nampale ee eh, eh, waaw far yoo joalo gay naa ko daan aba nelawuma eh, ah <laughs> jàmm bu yebi gee maalaw mi ci kañ moor leyti mi ci sango maar ma mori maa jigee waaw mi ci sanjaal abu mbay laay jiin walay sa dengoñ mi ci ngaraaf ak yirim ndeela mi ci lambaayi waaw jexe demba yaay ñaayi kon daali daali daale e daali waayi daale euh, temps bi daf ñoo xoj yaakaar naa ne damaa doyal ci moom euh, te dafa war a playback bu yoon doon yoon euh, xam nga ni fafa du jógee ba Gàmbi yegg si léegi te taxawul fii playbackal ñu son bi eh, waaye cin bu naree neex suba xee dafay xeeñ Olof Njaay nee na bu yoon jeexul. waaw si du jeex tey Dakar ne dort pas am na. Mm-hmm. tey ci guddi. abaa nee ma dëgg la. dama koy jël moom Fafa mi bett ma mu taxaw fee playback. bett ma tey ci Dakar na dort pas. yow nga taxaw fan. ma toog fii. Ah. di gees <laughs> mën ngeen a tàggatoo. ah mën ngeen a tàggatoo. Euh, man euh, du ma tàggatoo damay yeggaleeg moom. te kanam ci Dakar euh, ci kii hmm. ndaxte ku ma xam Gambia amul benn émission bu may def ba mu jeex te Abo ak Fafa ubbiwuñu wuñu ko tëjuñu ko parce que kóllëre bi sama ñoom yaay la ak yaayam. Hmm. démb la woon du tey lu muy def nii nag Aba dugguleet si Fafa because she's from a Grioet family yaayam su ne der nga ne o Euh, rakkam jee ñëpp ak mën na way rakk ji rakkam ji mooy sama moo leen dàqawee ñoom ñëpp du benn man nee naa ko Aïda ak Thiat laa àndal ki ñëwoon dafa war a wëy ak Kumba Gawlo Seck because uh, macha allah voice am uh, dafa amazing waaye man lenn laa bëgg a xam Abu dafa dem jàngi wala dafa dem kii ndax Abu dina ñëw wala yow mi uh, Abu daf lay xaw a téye tuuti doo mun a dem sans Abu o yaa ngi prépare pour dem solo pour yeggali li nga xamante ne yaa ngi Gaye la de ah. Awa Gaye la de ñu woon naa nañ tàggatoo de Awa Gaye la. non Awa yow Awa Gaye la nañ tàggatoo. Ah, mm. forever ah, ok man def naa ko it dem daaw. mu xaar ma. man bu demee war naa gore mën koo xaar. ndax lépp ci liggéey bi la rek. Mhm. kon su guddi mu gën a yaatu li jël ci soxla yi. Mhm. bu guddi jotee rek ñu yaatu. ñu gën a yaatu waaye di ci yow di kontaan mhm. la ñaanal gudd fan ak wér ndax yow Gambien si yëpp ñu ngi proud ci yow. definitely we love you. fierté la biir Gambie donc bu guddee euh, li ngeen ko bëgg laaj yëpp mën ngeen ma ko envoyé ci whatsapp bi. Ah, euh, wala ci SMS ma déedéet déedéet toogal <laughs> euh, toogal te ngeen tàggatoo salaamaaleykum <laughs> tey plateau bi bu yànjee tey plateau bi bu yanjee nii ah didi ñu ñu ne nga jël HF bi sa micro dafa fay tey plateau bi bu yanjee nii yaakaar naa ni sama yaay jaar na fi waaw tey kay ku xool rek gis. différence day marqué empreinte am. Oh. ku xool li xam ne du samedi bi passé du samedi bee woon du woon tam ci koor gi. ndax mooy séeri papa mooy séeri papa yaayu Khadija Mbacke ñëpp Khadija dafe ñun ñëpp mooy suñu yaay. donc Adja vaisselle moo nekk nii tey defati rek mëninam ñëw ci blanc ak doré comme d'habitude xam naa samedi prochain ngeen gis lu ngeen musta gis saa yu ngeen ñëwee rek muy gën di bees di gën di rafet donc moom mi ngi nekk Castor numéro 77 723 32 32 Castor rek boo demee ca boori CBAO ba di nga ko seen ñu bind ko bind bu rëy Adja Vessel Adja mu Serigne Fallou donc euh, foofu laa ma ne tàggatoo ah, di wax ni tey nag sama yére bi tey bu rafet bi rob bi Boss Lady moom ko solal Yacine Faye ki ay dara seen numéro nekk 77 253 ñu ngi nekk Liberté 6 ca kaw amee ab beauty boo demee di nga leen fa fekk di fa gis tam ay variété yoo xamante ni mosu leen ko gis te du ngeen ko gis fenn di jaajëfal tamit sama xarit ba ah, Amadou Sow sama xarit sama doomu ndey ki nga xam ne moom a téye fukki loxo muy Amadou Sow borom Medina Gounass donc maa koy nuyu et di leen wax rek à samedi prochain incha allah. à samedi prochain maa ngi lay béggee euh, sama waa ji euh, Balla euh, c'était un plaisir ah. waaw bokk ak yow plateau bi si c'est pas partagé. donc mm-hmm. merci le plaisir n'est pas partagé. waaye mm-hmm. li may partagé c'est pour vendredi incha allah di jox rendez-vous aussi. ci Abba Show bi defe naa ni euh, billets yi waxoon nañ ni génn na donc 77 655 51 80 ba ngeen ko defee rek daal di woo lom mu jox leen seen billet mu boole leen ak Jibi Diop Baye Fall propre ngeen ànd ak moom ñëw ci Abba Show bi yëngal ko ba mu yëngu donc loolu mooy rendez-vous bi euh, na ngeen teel a ñëw nag parce que bëgg na nañu bëgg nañu 20 heures fekk ñu ñun ñëpp ci kaw scène bi. ñun émission la ñuy def. salle bu bu commencé dañuy tëj. dañuy dañuy commencé tëj tëj salle bi donc def émission bi ñu teel a pare teel a ñibbi ku nekk nekkaat ci say activité parce que vendredi la début week-end lay doon bu soobee yàlla donc maa sant bu baax a baax di gërëm euh, sama xarit bi Baye Cheikh Baye Cheikh borom airport moom moo a génne ci dàll yi ci suuf moo dem ba bitim réew. ñëw indil ma ay dàll yu rafet moom du jaay diw diw. diw gi ci man la diw gi ci man la Baye Cheikh 77 410 47 97 moo ma génne ci dàll yi waaye Diop shop sama xarit la mooy euh, borom yëre yi rafet yi ma nga fële ca caaro yi donc moom itam maa ngi koy béggee bu baax a baax moo génn ci kaw ak ci tubéy ji maa ngi koy béggee 78 451 10 37 moom mooy numéro am un big euh, big big big big happy à mon ami mon grand mon père euh, Pape mbay maa ngi lay béggee bu baax am leen jàmm ay ci mu ngi noonu sam xaw ma ban sam ni ngay am jot nga xam dañuy pare weekend saat rek laal suñu weekend bu ne muut maag yow jàpp suñu ñàmbur ñaaw na ba pare ñaaw na ñaaw na gën a ñaaw donc gis ngeen ah ñaaw na ba pare tabarkaal ah moom la ñuy jël moom la ñuy dëkkoon ah doo fay dangaa fay la of fay du may li of zuma samay daal of zuma jàmm teel sa micro mbay eh, kii fay na of du may li of du acce ah waaw ah, woo leen ko mu jox leen ci dàll yi ak yeneen nii laa ko abaa ba samedi prochain. Ah, ba samedi <laughs> ah ok loo yow. Euh, man li ma wax damay wish a happy birthday to euh, Yande euh, Dia bu sëru kii di Dada borom Aya Couture Aya nee na mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gi yaram lépp loo xamante ne danga ko bëgg mi ngi la koy ñaanal bu baax a baax ay dara Majo Peex ak man mi ak Aba and the rest of the team ñu ngi lay ñaanal gudd fan. happy birthday in advance sama doom Cheikh Ibrahim lii sama doom suba lay toon un an incha allahu rabbi di ko ñaanal mu doon mag bu am njëriñ lool ci àdduna may uh, uh, uh, di jaajëfal the triangle de la beauté ci coiffure bi soin bi and everything di leen wax thank you so much Cheikh Sandaga dinaa leen jox numéro yi si réseaux sociaux bi ndaxte temps bi jeex na waaye Pinop Glam by Khadija moom itamit di ko remercier for the make Aba di jaale bu baax a baax Pathé Dia bu groupe Futur Média dafa lose ki nga xamante ni mooy parentam di ko ñaanal rek fi mu dem gënal ko fi mu jógee ko di leen jox dig daje incha allah ba de incha allah yal yàlla yërëm ko ah euh, fa kii Fafa da ngay jox rendez-vous nit ñi ci kanam. waaw maa ngi leen di jox rendez-vous ci kanam euh, di leen wax ni léegi léegi rek mu ñëw jàkkaarloog yéen. am nga beneen robe sa kër bu mel nii. ko gën a doy waar. waaw caar kàlla yàlla na jàmm yàgg kon ah, jaa ngeen jëf ah kon yàlla na jàmm yàgg kon. waaye nag ma toog fii te duma ma jaale nag ah ma suma broda Wally Ballago Seck. mënta ñàkk mënta ñàkk maa ngi koy jaale bu baax Papa Thion. Mm-hmm. waa di jaale Aïda waaw moom sax woo naa ko. Mm-hmm. maa ngi koy jaale bu baax a baax di ñaan yàlla mu géej fii suñ Papa Thion yal na ko yàlla xaaree àjjana. Mm-hmm. dee dina flyam Mm-hmm. amiin yaa rabbi donc léegi-léegi ci kanam damay àndaat ak moom ci Dakar ne dort plus donc nañu ñëpp xaar di kontaan ci équipe bi nga xam ne ñoom laa àndoon caméraman ah, euh, Ousin euh, ñoom Mass euh, ñoom Of Mbay yéen ñëpp maa ngi leen di béggee bu baax ak nga xam moom mooy plateau bi ah, Khadija Dafe make up bi beneen madame Mbacke bi moom Khadija tarkalla lom ah, ma nga ca ginnaaw waaye Papa Samba Thiam le grand réalisateur kii kàlla Papa Sila yow tamit ñoo ngi lay béggee xale bu jigéen bi nga xam ne mooy Essage ak xale bi ak Ibou Diouf ah leen di bu baax a baax sama yaay Adja Vessel maa ngi lay béggee mais man damay def spécial bëggee waa Gucci Pape Samba tëjël balaa wax ju sew di fi am maa ngi bëggee waa Gucci tëjël <laughs>